بسم الإله ينمو الهاء بلا مناهي ولا انتهاء بسم الإله ينمو الهاء بلا مناهي ولا انتهاء بسم الإله ينمو الهاء بلا مناهي ولا انتهاء حمدا لربي xayri murabbi xadram bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitab alqaa'il laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab wassalaatu wassalaamu ala sayyidil ajami wal arab wa ala alihi wa ashaabihi wa xayri xadimihi bilkitaab asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di tàmbalee nuyoo boobu ak siyaare ci suñu kilifa yu tedd yi ñu jottilil ñu ko ba ci seen kilifa yi nga xam ni ñoom lañu fi teewal muy al imaam sëriñ maam Fadilu Mbàkke ak sëriñ Yaxya ñu ngi leen di nuyu nuyu sell di leen jottali loo nuyooyu ci kilifa yi ni ñu ko baaxoo defe ci waxtu wi ci barab bi saa bu ñu agsee ci waxtu wi daan nañ faral di e, fàttalante ci benn tomb tey nag ñu am mbégte bu baax di dalal suñu gan yu tedd yi nga xam ni ay ndaw lañ waaye ay boroomi xam-xam lañ euh, ñu nag dañuy leen di présenté rek xamale leen ak mbooloo mi daal di leen di bàyyi nag ñu def waxtaan ke ci njëkk ci suñu ki ñu dendal di Serigne Cheikhouna Ndiaye Serigne Cheikhouna euh, doomu dëkk bi la bokk ci kilifa yi nga xam ne ñoo bokk ci Touba Taysiir gi ci suñu wet ak ca Gédé Njaay ca Touba moom nag mi ngi gane àddina ci Touba jànge fi alxuraanul karim ba mokkal ko wattu gu rafet mu def la dem dëkk buñ naan jaamal siise ca Saalum mu sàkku fa xam-xam sàkku fa xam-xam ca kem kàttanam mu daal di fay jóge dellusiwaat fii ci dëkk bi bi mu ñëwee daal di dugg ci al boobu nga xam ni moo nekk ci ndaam bi mu fa duggee dafa diir amee fa lijaasa yi nga xam ni moom la doon wut mu def rihla dem muritaani bi mu demee Mauritanie nag jaar na fa ci ay jaarwaay yu bari bokk na ca yooya maxdaratu taysir bi nga xam ne ñu bari xam nañ ko dégg nañ ko ndax seen relation ak Touba bi mu jógee foofu it jaar na ci maxdara buñ naan nabbaaxiya nga xam ni moom it xam nañ ko bu baax ndax seen diggante ak seen jëflante bu rafet ak Touba ndax seex boobu fa nekk def na ñaari yoon ay nemmiku fii ci dëkk bi niki noonu it kilifay dëkk bi noonu la ñuy demee di nemmiku barab boobu bi mu jógee foofu jaar na maxtara bu naan Tinwis ba tey lépp ci Mauritanie yàlla nekk bi mu jógee Tinwis googu nag ak yeneeni barab yoo xam ni jaar na fa ngir gëstu mu dugg ci université bu mag bi nekk foofu ñu di ko wax al mahadul ali li dirasat wal bu'as al islamiya mahadul ali boobu nga xam ni ñëpp ñu bari xam nañ ko mooy foofu la defee dirasatul ulya ba génne fa ni ki daaw ci saada boo xam ni mooy maîtrise li gën a am solo nag ci génn boobu ak jaaruwaay boobu moo di bi mu demee ba war a def teesam au lieu mu tànn leneen waaye dafa tànn téere boo xam ni lenn ci suñu magi réew mii ñoo ko def muy Serigne Mbacke Bousso mi ñëpp xam al euh, mu jël ko def ko dirasa wa euh, ak taaqiq ak sharx nga xam ni buñ ko dee tënk daal dañ naan téere boobu waa réew mi sax xañ na xamuñ ko bu baax moom mu jël téere ba xamale ji ko ca bitim réew bi mu jógee foofu it mu dellu siwaat fii euh, samp daara ci dëkku baayam boobu di gedde ubbi fa madrasa bu mag di jàngale mbooleem xeeti xam-xam yépp niki noonu it danay jàngale ci tokkooru sëñ Sax Gaynde Fatma boobu ñuy wax almahadu duruus al islaamiya niki noonu it danay jàngale ci fatxul mannaan di école boo xam ni sax moom mii ci ñi ko sos la bokk ndax famille sëñ Njaay Gédé boobu ñoom ñoo ëpp doole ci mbooloo mi ko sos kon lii mooy ay jaar jaaram defe naa bu ñu waxee jaar jaaram bu am solo bi yaakaar naa kon lépp loo xam ni yaakaar nañ ko ci moom rek dinañ ci am lu kawe bu sëriñ Fadilu ak bay bay alxaji Kebe mu juddoo ci dëkk bi moom it jàng fi alxuraan mottilee alxuraanam ca Jurbel mokkal ko mokkal gu rafet ci niñ ko baaxoo ame niki noonu it mu dellusiwaat fii ci dëkk bi di Tuubaa continuer am njàngum xam-xamam ba géeju lool ci xam-xam xeeti xam-xam yu bari mu def rexlaam moom it daal di dem Mauritanie waaye ba mu fa demee mubasharatan rek dafa dugg ci institut bii ma wax léegi muy jaamia bi nga xam ne mooy almahadul ali li dirasat wal buhus al islamia nga xam ne mook Serigne Cheikhouna mi ñoo fa bokkoon nekk moom it mu wéyal fa njàngam euh, ba yàlla dogal bi demee ba war a def tees tamit moom it nii ko sëriñ naa defe rek la ko defee mu daal di fay bàyyi lépp dal di ñëw ba fekk li nga xam ne moom la suñu mag ñu baax ñii ci réew mi bind mu jël ko charx ko taxqiq ko xamle ko foofa ndax booy def tees toujours koo indi mbindam rek da nga xamle mooy kan te ñooñu koo ci xamle rek ak jikko yu rëy yiñ làmboo ak xam-xam bu rëy bi nekk ci noom ci ñoom boo ko xamlee ba pare wëlbatiku ni ci ginnaaw sañ tubaa lañ topp loolu dong doy na sëkk ci xamle kan mooy sëñ Touba loolu yi nag ak seen jaar-jaar bu am solo bii ñoom ñaar ñii lañ dalal tey fii ci Daarul Karim ci seen ëttub maam ngir ñu tereteel ñu thème bu am solo bii nga xam ni thème bu mat jàngat la ndax jamono soxla na ko muy al xaswatul xaswatu badril kubra ahdaas yi nga xam ni moo ci am ak lan lañ ci war a jàngate maanaam ci suñu dund ngir ñu jariñoo ko wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwani wa tamkin wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bañ sante yàlla julli ci yonenteem bu tedd bi alayhi ñu leen di nuyu nuyu bu lislaam te mooy taxiyatan min indillaahi mubarakatan tayyiba di jiital ci nuyu bi suñu kilifa sëriñ imaam maam Fallou Mbacke ak sëriñ Yaxya ni noonu tamit noonu lañ ci tegee suñu sëriñ suñu xarit sëriñ Xaadim mbàkke mi nga xam ni yàlla def na ñu fekkante ca bërëb boobu di gànnaar ñu fekk ko fa tamit wax dëgg nekkeen ba rafetoon lool di ko ziar bu baax baax di rafetlu bu baax tamit boole gi nga xam ne boole nañu ko ci mbir mu am solo mi ngir bëgg ñu jariñu eh, naka noonu tamit noonu lañuy jàllee di ziare mbokki jullit yëpp ak mbokki taalib yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo teewee jotaay bi xam naa ci gàttal mawdon bi war a waxtaanee mooy xaswatul badr al ndax badrin dafa am ñaari xew-xew yoo xam ne moo ci amoon am ñu tuddee ghazwatu badr al as am ñu tuddee al kubra ñun nag bi bi nga xam ne suñu waxee badr moom lañ ci faral di jublu ci mooy al kubra moom lañ bëgg a ñëw incha allah waxtaanee ko waxtaan wi tamit di seetlu ko ci ñaari xaaj dañ indi ahdaas yi maanaam xew-xew yi nga xam ne moo ci xewoon lan moo ko waraloon nan la xew-xew xewee mooy duruuf yi environnement bi nga xam ne moo amoon njëkki xew-xew yooyu di xew xew-xew yi tamit nan la demee woon incha allah dañu ci ñëw ginnaaw xew-xew yi tamit dañuy indi beneen mawdu mooy al ibar yan jàngat lañ ci mën a am ak yan leçon moom lañ ci mën a jëlee ngir jariñoo ci boo defee ci gàttal njëkk ñuy jox suñ sëru nga xam ne moom mooy féetewoo ahdaas yi muy xew-xew yi boo defee lim jàngat ci ahdaas yi dañ ci génne ay anwaar muy duruus yoo xam ne moom lañ ci mën a jàngate xam nañ ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam risaale bi nga xam ne moom la indi ci suñu boroom jox ko mu war koo jottali jaam ñi daa seetlu ko ci ñaari fatra daa seetlu ko ci ñaari xaaj am na ci xaaj boo xam ni Màkka la ko defee waaye am na ci xaaj boo xam ni Madina la féete woon xaaj bi nga xam ne nag ci la féete woon ci Màkka gis nañ yépp rek ci taw jie la daan am ak tamit li ñu tuddee alkaf nga xam ni daanul jàmmarloo ak yéefar yi soo xoolee sax nusuus yi ñëw ci wàllu googu yépp da koy digal mu muñ ak baña a bañ leen a topp parce que safal jamil mu daal di leen jéggale jéggal gu rafet comme ni nga ko waxee na ko wa jaahidhum bihi jihaadan kabira nga xam ni daanu ko digal mu jël ngànnaay di xeex diir ba yonente bi alayhi salaatu salaam nekk màkke yépp daanu jël ngànnaay di xeex waaye suñ ko masaana yàlla ko daan wax mu muñ bi ñu weesoo marxala boobu ba yonente bi alayhi salaam gàddaay ci ndigalul boromam ba ñëw almadinatul munawwara eh, ci la ko yàlla digal mu door xeex udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir kon ci la suñ boroom di digal mu door a xeex ñu gis ne xasawaat yi nga xam ne moo am yépp ci diir boobu muy fattara bu mujj bi mu nekkee ma dina ci la xewee xasawaat yooyu nag da ci am boo xam ne bu am am solo la bu tuddee xasawat Badr mu xewoon ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor naka noonu tamit xewe woon ci bis bu altine am fukki xam naa du so rek bis bi nga xam ne moom lañ nekk tey ci weeru koor mu nekk xasuwa bu am solo lan moo tax mu am solo xasuwa bi mu am eh, ñi ko jëli doon seqal muy waa Màkka seen suma ak seen siiwaay nga tasaaroo woon na ci gox yëpp nekkoon ñoo xam ne tamit ñu am doole lañ waaye tamit ñu bari woon li xam ne mooy ay jumtukaay lañ xel xalaatu woon ci jamono jooju sax ak jullit ñi ñu néew woon doole ñi dañuy jàmmaarloo waaye yàlla def jàmmarloo bi am ci ni mu amee ci gàttal am na jégg moo xam ni jige woon na màkka e, jullit ñi gis ni tamit seeni mbir ñaa nga ca ndax biñ nekkee màkka dañ leen daan buntu xatal ñu daan gàddaay def bàyyi seen alal kon nag jéggi mii di romb occasion la ngir ñu mañ ci jaaree jël seen alal yooyu waaye bi ñu demee di di dabi njëgg moomu ci la Abu Sufyaan yëg loolu daal di teggi aw ci weneen yoon yooyu diñ ci guddal bi suñ sawru ñëwee incha allah dama gën a leeral ci gàttal boo waa Màkka yégée ni njëgg mu raw na tamit teewul ñu ni euh, ni leen julli ñi def daal ak yabeel la ndax lu tax ne waa Màkka ak fi ñu tolloon ci jamono ci àdduna bi ñu ñemee ñëw di kar seenum njëgg loolu rek yabeel la kon dañuy ñëw jox jullit ñi leçon boo xam ne dana waral bu ëllëgee duñ ko defete kon ginnaaw bi ñu xuloo xuloo bu gàtt boobu ci la mujj dëppoo ni dañuy dem xeex ak jullit ñi jullit ñi tamit ñoom bi ñuy génn euh, xeex taxuloo ni génn li leen doon tax a génn mooy kar am njëgg yàlla def xeex fekk leen ci kon loolu moo tax ñu bare bare ci ñoom génnuñ waaye tamit bi ñuy génn indaale seeni jumtukaay waaye yàlla def na eh, may leen ndam ci xare boobu may gim leen may ndam nag moo tax lislaam di taxaw ba jamono ji ndax kuréel boobu comme ni ko yonente bi aleyhi salaam waxee woon yàlla ci biir ñaan gi na ko bii bu fekkoon ne bu fekkee ne alag nañ leen rek kenn du la jaamote ci kaw suuf kon kuréel boobu tax lislaam des fi bi jamono ji euh, ba ñu wax ne tamit ko ko fekk woon jégal nañ la kon kuréel boobu euh, la taxoon mu euh, mu wattu lislaam ba jamono ji ci mooy xare boobu di badrin kon lu mata a la kon ci gàttal xëy na dañuy jox suñ sawru bu ko defee moom mu dugg ci ahdaas yi bu duggee ci ahdaas yi nag ba leeral ko ba noppee ñu door a jël ay bari maanaam muy njàngat yi nga xam ni mën nañ ko njàngee ci xare boobu daal koy jariñoo incha allah ñu ngi jiital ci nuyoo bi mbokk yi nga xam ne ñoo amal jataay bi te di ko jaarale ci Sëriñ Xaadim Mbàkke mi nga xam ne euh, moo sabab sunu teew ci bërëb bi mu teg ko ci loxol kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi ñu jottali ko ci loxol kilifa yu mag yi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi ñi ngi rafet lu baax a baax euh, liggéey bi ni muy doxe nekk gi mu nekk ab jéegoo ci tas xam-xam euh, di sant yàlla bu baax ci yaatal gi nga xam ne yaatal nañ ko ci liggéey bi euh, ba ñu teew fi tey jii fas yéene fee yëkkati ay kàddu yoo xam ne euh, kàddu yi jàngalante ak fàttalante rek du kàddu yoo xam ne yu bi la ci yéen di sant bu baax mbokk mi nga xam ne moom lañu àndal waxtaan muy suñu soxnaa ci jiital gi nga xam ne jiital na ko ku noonu noonu la ñuy sant sëñ xaadim ci xamle geeg yi mu fi tudd yëpp dañuy dugg ci waxtaan wi dugge ci euh, comme fi nga xamee ne fi la sëñ bi taxawoon sëñ seexu na euh, te dafa tënk waxtaan wi ci ay minutes yu gàtt euh, yooyu mu tënk nag ci lañ bëgg a egsi tomb bu nekk ñu taxaw ci taxaw yi woo xam ne dana dana ci mën a indi loo xam ne rek nit ki dana ci mën a jariñu ba bu ci bëggee xóotal mën naa demal ak boppam ni mu ko waxee thème bi mu ngi doon xaswatu badrinil kubra xadaasun wa ibar xare badar bu mag ba ak xew-xew ya fa xew ak yañ ca mën a jànge euh, xare badar nag li ko waral lu ñu xam la waaye lu jiitu loolu day aajowoo ñu xam mbir mi nga xam ne julli ñi nekkoon nañ ci lu jiitu xare bi te xam ne ko xam ne goo xam ne Eh, du aajowoo ak yaatal jullit ñi bi nga xamee ne sunu borom dafa yebal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu indi fi diine joo xam ne day teg nit ñi ci yoonu jub day indi wuuteeg la fi newoon ndaxte bu ñu xoolee xasawaat yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëpp def na ko eh, dañuy gis ne rek jubluwaay bi nekkutoon toroxal aw nit wala rey ay noon wala jàpp ay noon wala dara waaye jubluwaay bi ngi nekkoon tasaare diine ak yaatal lislaam ba képp koo xam ne bëgg na cee askanu mën cee askanu ci ni ko soobe wuuteeg xare yi nga xam ne da daan am lu jiitu lislaam ndaxte buñ jàng delloo ginnaw bu buñ delloo ci ginnaaw dañuy gis ne eh, ñiñ daan woowee eh, masalan al jahiliya ñi nga xam ne ñoo jiitoon lislaam te ñu daan jàppe ay ceddo dañ daan xare ay xare yoo xam ne lu tuuti mën na ko sabab te lu rëy mën na caa xew xare yoo xam ne lu mel ne xare boo xam ne rek ak gileem da koy sabab joggi neenu jàmbur wala dara ñu di ci xare ñiin fukki at xare boo xam ne lu ñàkk solo moo koy waral wala xare yoo xam ne ay fas ay rawante aw aw fas ay xuloo xew xew ca ay ati at bi nga xamee ne nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ay xareem dañuy gis ne xareem moom dafa wuute xare yu baaxoon am ndaxte diine taxawal diine moo ko ñor sa dëgëral ko ak fexe ba jullit ñi man di dund seen diine te duñ ci am lenn loo xam ne ñu ngi ko ci bàyyi xel euh, ci ko suñu boroom yebal ngir loolu nekk gi mu nekkoon Makka nekkoon na fa yàlla suñu boroom atte woon ne mbir moo gis day am tàmbalikaay ñu tàmbali woon fa ak doole ju néew ba tax na liñ bëggoon a dunde seen diine mënuñ ko woon a dunde waaye teewutit euh, teewutit daanañ ko dund dundin woo xam ne daal moo xam dañ ko daan nëbb moo xam liñ ci daan mën a feeñal daan nañ ko jëme bi nga xamee ne yéefar yi xatal nañ leen ci dund googu ci daan dund ba dañ teg leen ci coono yoo xam ne dem nañ ba mënutuñ koo dékku ci suñu borom atte ñu gàddaay dem Madina ndaxte ab jullit moom fépp foo xam ne mën na fa ma nga fay nekk te du fa mën a dund diineem rek dañ koy digal mu bàyyi foofa dem feneen nga xamee ne nag dem nañ Madina euh, ba nekk fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag ci la commencé Euh, sosaat ab état maanaam ab daw la commencé nag soppi doxin ci comme ni nga xamee ne fële dañ daan masla ak laqatu bu dee fii moom dañoo commencé nag teg seen yoonu bopp boo xam ne dañoo fas yéene balaa yàgg rek ñu am seen doole bopp joo xam ne ci lañuy doxee euh, doole joo xam ne dañuy day lislaam képp koo xam ne yaa ngi askanu ci lislaam doole jooju dalay mën a aar biñ nekkee Madina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doxal na fa ay doxalin yu rafet ay doxalin yu ñaw yoo xam ne tax na ba jullit ñi am doole ci diggante bu gàtt bi ñu fa nekk ndax da fa fekk fexe na ba dugalante ñoom fexe ba ba si bañ bañ bañ bokk la ñam ñam fa nekk yoral ko kaaraangeem diir bi mu fay nekk ni noonu yonent ci noonu yonent bi dox di dox di dox ba atum ñaareel bi ci gàddaay gi euh, yàlla dogal arab yi ñi nga xam ne ñoo nekkoon makka xam ne dañ daan faral di commerce te ñoom seen commerce lépp mu ngi aju woon rek ci yaxant maanaam ay ay njëg yu daan dem di jënd ay marchandise di ko indi màkk su ko defee ñu di ko jaay daawuñ bay daawuñ def dara ndax foofu yëpp ay montagne la woon wenn xur moo fa nekkoon te xur woo neexut a neexut a bay nga xam ne ñoom seen lépp mi ngi newoon ci rek ci commerce waaw bi nga xamee ne nag am na benn bis ci bis yi yàlla àtte ko ñu wax Abu Sufyaan jiital am njëg maanaam am mbooloo moo xam ne ay giléem a ca nekk giléem ya def ay alal ju bëree bëree bari ñu bàyyi ko saam war a delluwaat makka ci la ci la yonent bi xam ne nag euh, comme ñoom bañ nekkee euh, makka dañ leen daan néewal doole daan nangu seen i alal ndax fi mu ne bi ñu leen dàqee bi ñu gàddaay am na ñoo xam ne sax seen i kër dañ koo nangu jaay ko nga xam ne yorutuñ fa dara am ñoo xam ne dañ faa bàyyi seen alal bàyyi fa seen soxna ñu bàyyi fa seen julli ñi xam nañ ne lii yéefar yi di commerce seen alal mi ngi ci te nit ki am na droit nangu alalam ci ku ko yor bu ci mën a jot ci la yonte bi sallallahu alayhi wa sallam wax nag ne leen ah njëgg mii di ñëw kat seen alal mi ngi ci njëgg mii di ñëw kat mën ngeen a jug dem dogaale ko ndax mën naa am yàlla suñu borom jàpp na jàppandale leen ko defal leen ko ak ndolleen ndollent wax la leen ko wax nag wax waxin woo xam ne euh, su forcé wu ci kenn maanaam dañ ko wax rek waxin woo xam ne euh, bi mu leen koy wax forcé wu leen ci ñu jug dem waaye da leen ko waxee noo xam ne képp koo xam ne bëgg ngaa dem bu dem képp koo xam ne bëggoo dem mën ngaa dem ba bi mu leen ko waxee ci la ñenn ñi daal di jug daal dem bi nga xamee ne ñenn ñi jug nañ dem di kar njëg ma te bañu dem lim bi taxu ko woon bari bëri lool lool lool lool Euh, ay ñu ngi tolloon rek ci ñett téeméer ak fukk ak fukk ak yu tegal ñenn ñi ñett ñenn ñi ne ñeent ñenn juróom waaw euh, fekk lu jiitu loolu it Abu Sufyaan mi nga xam ne moo jiite njëg mi moom yàlla dafa defoon mu nekk nit ku ñaw koo xam ne dafa bëri lu muy baxal depuis bi mu bàyyi ko Sham di ñibbisi mag mu ngi bàyyi xel yoon mi fu mu toll di yónnee ak laaj comme dajal naan ko ah mbaa yoon wi moom amul ay danse mbaa déggoo fi kenn kuy kuy dogalee nit ñeeg yooyu di def noonu di def noonu ba laaj nit mu ne ko ah dégg naa ne Muhammad ak gaayam yi kat ñi nga waaj ngir kar la yàgg si njëg mii waaw te fekk booba njëg mi junni giléem la woon yoo xam ne dañoo sëf ba fees dell sëf alal ba fees dell te lañ sëfoon ci alal boo ko doon nattale ëpp na juróom fukki junni diinaar zahab yi yoo xam ne boo ko doon boo ko doon nattale ci alali tey yi dana nekk ay dana nekk lu takk waaw boo ko doon nattale ci alali tey yi dana nekk alal jooju ñeen fukki nit rek ñoo ko doon garde nga xam ne tey jullit ñi génn ni génne woon bu ñu demoon danañ ko mën a jël ci lu yomb waaye comme que Abu Sufyaan yëg na seenu ñëw ci la fexe ba def ay pexe daal di bind leesar ku jox ko ko ñu wax Damdama ibnu Amr al-Xifaari ne ko nag dawal gaaw Makka nga wax gaa yi ne leen kat njëg mi nga xam ne mu ngi jóge Saam te seen alal nekk ci Muhammad pare na ak ay gaayam ngir dogali ko ci la moom def moom ci la def lu gaaw a gaaw daa dem Makka daal di yégal waa Makka xibaar bi bi mu leen ko yégalee nag te bi mu ñëwee dafa garaawal mbir mi ndax arab yi dañoo baaxoo woon bu ñu daan nettali lu garaaw dañuy yéemal yëf bi mu ñëwee ba egsi ci giléem gi bi mu ñëwee ba egsi dafa taxaw ci montagne daal di xotti yére yi mu soloon daal di lelli bakkan bi wëlbatiku yuuxu ba ñëpp dégg ko mu daan di jug leen jug seen alal ma ngay sànku gaaw leen gaaw ndax Muhammad ma ngi koy ma ngi koy dogale bi mu defee lool nit ñi daal di jug ñëpp jug ba mu des bu dee kilifa yi makk yi nga xam ne ñoo jiite woon yéefar yi ñëpp a des Abu Lahab Abu demut waaye teewut na ko ko demal ndax kooko dafa yoreloon bor kooko dem palaasam bu dee waa Xurays ñëpp dem ba mu des Bani Ad nga ñoom dong ñoo demutoon waaye ñëpp a demoon. ñu génn ci mbooloo mu rëy moo xam ne mat na junni ak ñetti téeméer mat na junni ak ñetti téeméer boo doo xoolee junni junni ñu ngi doon ñetti téeméer ak ah, bi nga xamee ne génn nañ nag commencé dox ñoom it dox bu gaaw jëm jëm bador parce que ne fe bëgg bu ñu fekkee julli ñi dal leen eh, toroxal wala bu ñu fekkee julli ñi jëmlee na a eh, xeex ak ñoom ci noonu ci la eh, bindal leetar ci la bindal leetar ndaxte ginnaaw bi moom it dafa commencé dafa wëlbatiku bi ñu ko xamalee ne ko yeneen jullit ñi ñu ngi ci yoon yi dafa wëlbatiku yoon yu naroon aw dafa jaar ci yeneen yoon bi mu jaaree ci weneen yoon di dox di dox ak njëg mi ba jub ba Badar daal di gaaw jiitu njëg mi bi mu ñëwee di di xeeñtu yoon di xool ba xam am na ay ay yu fi nekk yu ñu ko sampal maanaam ay ndëgg sarax yu ñu ko tegal am déet ñëw ba gis benn waaye na ko ah ndax gisoo fi jullit waa ji ne ko ah, man de xaw ma ci dara waaye daal lu ci man di xew ma mooy gis naa ñaari waay yoo xam ne ñi ngi war ay giléem euh, bi ñu waree ay giléem daal di yësal daal di daal naan seen i ba seeni seen i daal di bu ko ah, ñoom bi ñooy faral di xamante mooy mag xam ne kon nag te julli ñi sori mu daal ci la jël nag njëkk mu daal tegge daal di daal beneen leesal bu bees daal koy jabal ci yëpp di neen nag mën ngeen doon ndaxte li taxul ngeen di génn nag mooy rek ne eh, yéen Muhammad ak gaay bi ñu mën dogal dogal te fu ne nii njëkk bi mujj kon mën ngeen def bi mu leen waxee loolu nga xam ne ñoo jiitaloon borom ak seen wéy jàpp ne ñu ne ah déet ñu daal li ñuy def daal mooy dañuy génn xam ne ni moom dañuy génn bu ñu ci jullit ñi fas yéene leen lu moom xamal leen ne ñun kat seen morom fas fas yéene jox bind boo xam ne gis ni ngi tey ci dañuy jaare waaw waaw ndaxte ñoom dañoo gisoon ne rek euh, dogaale bi xam ne jullit ñi am nañu fi tudd ñoo xam ne kenn wóorut a ñibbi sax ñu wax ñu teg kon bu jullit ñi amee fi loolu loolu day mel ni bu noppee day day wàññi seen gàtt tax na ñu tudd génn na ndax donte julli ni donte njëkk bi ñoom dogal rek moom moom mucc na waaye nee nañ force dañu génn dem bi bi génne waa rek ñoom ñëpp kenn rek mooy koo xam ne nee naa moom dem ndax nee na li ko taxoon a jóg rek mooy njëkk Zuhra Banu Zuhra moom seen lim ñu nekkoon ñetti téeméer Banu Zuhra moom seen lim ñu ne woon ñetti téeméer bi nga xamee ne wax na gars yi laa wér na gars yi ko bi nga xam ne dem ngeen sooy suñu njëkk wax nañ ne mu ci nag jëlut bi def mën nañu ko ñoom ñu jël ñu fokk dem dem ba barab jege wàcc fa lekk fa yàqu naan fa sàngaar bu defee jigéen ñi tëdd ñu fekk ara arab yi dégg ñu xam ne ñun kat doole ji mag la jar soo defee kenn du ñu fa moom bi ñu waxee loolu dégg ñu laaj la ginnaaw bi sax moom euh, mbooloo bi ñu jiitoon euh, ni ko noonu jullit ñoom xamuñ ne yéefar yi ñu ngi ñëw bi nga xamee ni ñi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabaloon na leen ñuy xeeñtu xibaar yi maanaam di di gëstu xibaar yi yéefar yi fu ñu toll bi nga xamee ne jotal nañ jullit ñi ne yéefar yi ñu ngi génn ci mbooloo mu rëy moo xam ne mi ngi toll ci euh, junni nit ak ñetti ñetti téeméer ak te ñi ngi yor lu toll ak juróom-benni mbubbi ko juróom-benn juróom téeméeri mbubbi koŋ ak lu ëpp téeméeri fas yonent bi nag ci la xamee ne kon xare mënut a ñàkk ndaxte bu dee ñoom seen jubluwaay moo nekkoon rek euh, kar njëg mi nangu lañ yor kar njëg mi rëcc na nag waaye gars yi génn nañ ne il faut ñu xare kon yonent bi gis na ne xare mënut a ñàkk léegi nag daal dajale gars yi commencé diisoo bi mu diisoon ñoom wax leen gis-gisam ak ci xare bi nu nu nuñ ko nuñ ko nu ñu def Aboubacar daal di jug daal di wax wax ju rafet ni ko noonu Omar jug daal di wax wax ju rafet ni ko noonu al Miqdaad ibn Amr daal di jug wax wax ju rafet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di dégg loolu ci li ñu wax waaye dafa mu jël benn benn benn dogal dafa wax ne maa ngi sàkku ngeen dolli ma dolli ma. ngeen dolli mi ay diisoo fekk bi mu wax loolu dafa jubloo xam waa ansaar ñi nga xam ne dañoo àndoon moom dafa jubloo xam seen gis-gis ndaxte ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo wax ñëpp seen gis-gis mooy muhaajiroon yi rek ñi àndoon ak moom jógee Màkka ñëw Madina waaye bu dee waa ansaar ñi nga xam ne ñu ngi leen fekk Madina nga xam ne ñoo doon dimbale yonent saasam kenn waxagu ci moo tax bi ñee waxee yonent dafa déglu bëgg ñee wax bi nga xamee ne Saad ibn Muaz ci waa ansaar la bokk xelam ñaw na mu xam ne yonent bi kat li tax nungut a jël décision dafa bëgg a xam seen gis-gis ñoom ci yëf yi sax daal di jóg daal ne yonent bi dafa mel ne kat eh, da da ngay bàyyi xel suñu xalaat waaye nanga xam ne ñun day ba nga jógee Màkka ñëw Madina ñoo ànd ak yow ba nii ñoo ànd ak yow te foo mën di dem danañu ànd ak yow bu la neexee dogal ko la neex jokkal ko la neex foo fu la neex demal foo man di dem danañu ànd ak yow géej gi sax boo ñu ko xuusloo woon danañ ko xuus waaw ñu ko waxee loolu nag yonent bi saasam daal di bég lool kontaan lool daal daal leen wax xamal ne nag gis na ne suñu borom digal gis na ne suñu borom euh, jox na ko ngañaay loo xam ne mi ngi ci kanam ñu fas yéene nag dox jëm ba Badar bi ñu dox ñu ngi yoroon rek juróom-ñaar fukki giléem juróom-ñaar fukki giléem lañu yoroon yor ñaari fas donc seeni jëes yi juróom-ñetti jëes yi dong la doon juróom-ñaar fukki giléem yi ñoom ñetti téeméer lañ ak fukk ak ñett yor juróom-ñaar fukki giléem nga xam ne dañoo mujj di toggoo dañuy toggoo jëleem gu ne ñetti nit toggoo ko wala xeet yooyu nga xam ne ñetti dañuy war buñ doxee bisaag yi wàcc yeneen ñetti war yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ak oyofam mook Ali ñoo ku ñuy wax Marsad ibn Abi Marsad am ñu ne du Marsad sax ku ñuy wax Aba Lubaaba la ñuy dox jëm Badar fekk lu loolu Màkka moom ma nga fa bàyyi woon rek Abdullahi ibn Ummi Maktum ngir muy jiite Màkka waaye biñ demee ba toll fi ñuy wax ak Rawxa ca la yobalaat ku ñuy wax Aba Lubaaba ngir mu dellu Madina moom Abdullahi faroo jiite nit ñi yooyu bu ko defee moom mu faroo doxal mbir mbir mbir mbir bi ñuy dox nag jëm bara jaar nañ ci ay jaarwaay yu bëree bëree bëri yoo xam ne du aajo ñu tudd benn par benn ngir diggante waxtu waaye rek ñu ngi dem bara jullit ñi ñu ngi yëfër yi ñu ngi dem ñu dem di dem di dem di dem ba nga xamee ne dem nañ beeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiitu na jullit ñi jiitu na maanaam jiitu na jullit ñi maanaam jiitu na yëfër ñu ci bara bu ñëwee ba jege ba doon dafa wàcc daal nag ànd ak abu Aboubacar ñuy wër di commencé xool jàngat mm, yéefari ñoom it nun nun dikkee ndaxte njëkk bi bu njëkk tax na mu may may ko mu jël montagne mi ndaxte Badar aw xur la ak montagne jël gi mu jël montagne bi dana ko dimbale ci mu mën a gën a jekku gaa yi ndax. lu jiit loolu afaa xeex bi day am suñu borom da leen dimbalee ab taw boo xam ne taw bi bi mu dikkee day gën a dooleel ñi ne ci montagne bi ndax ñi ne ci xur wi bu bu yàlla bu taweyaatee ci ñoom ndox mu bëri mee xur weeg yooyu ban beeg yooyu day tax seen jéego diis ñu xaw a sonn bala ñoo egsi bu dee yéefar yi ne ci kaw nag moom day yombal mbir mi ndax montagne bi moom bu bu ci ndox mi wàccee day tax suuf si dëgër seen wàcc gën a yomb yonent bi ànd naag Abubakar ñiy wër jumtuwaay ak ci la ci lañ gis am màggal moo xam ne dañ koo gis ci wetu fi nga xam ne yéex a fi ñoom ñaar ne ñu ñu baax ne man daal maa ngi jógee ci wetu yéex a ñu ne ko léegi ñoom nuñ toll wala fu ñu war a toll mu daan ne ah bu fekkee liñ ma waxoon wér na day nee nañ ma woon bërëb eh, jóge nañ màkk bis sàngam kon bis sàngam bis sàngam ci tey ñu ngi war a nekk bërëb sàngam yéen bi na ko julli ñu ne fu ñu toll mu ne ko ah bu fekkee li ñu waxoon wér nañu beneen ñu ngi jógee bi ma dina bis sàngam kon bis tey jii ñi nga war a toll sàngam ni ko noonu ginnaaw bi teewut yonent bi yónniwaat na ko ñuy wax Saad ibn Abi Waqaas ak Zubayr ibn al ak Ali ibn Abi Talib eh, yónniwaat na leen ngir ñuy gën a dolli ay information ci yëf yi ci xare beeg ni mu ci lañ jàppe ñaar ci lañ gisee ñaari yoo xam ne dañ doon ndox wala doon root dañ doon nàndal ñu jàpp leen indi leen fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko laaj ne yi nga jóge wala yàgg Abu naan mu daan ne leen man kat dama bokk ci ñi nga xam ne ñooy wëggal waa Quraysh ñu war koy jàpp dóor mu jógee mu jugaat ñu la ma waxoon ñu dóoraat mujj li mu ne leen Abu Sufyaan la àndal yonent bi saasam bi mu sëlmi dee daal leen yedd ci li ñu def ne leen yéen day bi ngeen ko laajee dëgg la leen wax waaye dëgg jooju gëmu leen ko ba dóor ko te bi mu leen waxee lu dul dëgg ngeen gëm ko waaye ne li am ta am ta am mooy ne Quraysh la àndal waaye àndut ak Abu ci la ko nag commencé laaj ne ko euh, ana ana gaay fu ñu nekk mu daan ne ko gis nga montagne mii ci ginnaawam mu ngi ci yonent bi saasam ne ko nuñ toll mu ne ko ah xaw ma ko de waaye xaw ma xaw ma seen lim ci xare bi te mooy al aswad ibnu abdul asad al maxsuumi niñ ko reyee mooy dafa wax ne force dinaa naan ci ndox mi julli ñi wala ma mabbu mbalka mi wala ma faatu nee na ndox mi moom force seen ndox mi danaa ci naan mbaa ma mabbu mbalka mi mbaa ma faatu rek bi nga xamee ne nag war na fasam jëm ca ndox ma xamsatu daal koy dogale dóor ko jeesi tànk bi yàqu mu daanu waaye teewul lépp giñ na ne dana naan ca ndox ma mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi darngu jëm ca ndox ma jëm ca mbalka ma bi mu demee ba egg bay dugg ci biir ndox mi Hamza dóoraat ko jeneen jeesi jekkali ko fekk bi mu koy jekkali mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi diriku di dugg ci biir nga xam ne kon moom man wax nañ ne moom lañ njëkk mooy ki nga xam ne moo njëkk a faatu ci xare bi su ko defee ginnaaw bi ñu commencé nag war a def jaamarloo Saad ibn Muaas nga xam ne ci waa ansaar la bokkoon waxoon naa ne moo jiite waa ansaar moo waxoon yonent bi saa sam ne ko foo foo boo ñu xuusloo woon géej gi dañ xuus yow Saad moom dafa waxoon yonent bi ne ko li ma gis de mooy ñu tabaxal la ab bërëb boo nekk nga xam ne yow diirub xare bi fa ngay ne ndaxte comme xare moom toujours dañ ki nga xam ne dëgg-dëgg day natale ki ki jàmbaar dëgg ki jëm si xare balaa balaa nga ngañaay day natale ak ñàkk maanaam toujours day day bàyyi xel ñàkk waaye day bàyyi xel gañe ci la ko wax ne ko comme que ñun dañuy xare mën nañoo gañaa mën nañoo ñàkk li gën daal mooy ñu defal la yow foo xam ne fi ngay nekk su ko defee ñun moom ñuy xare bu yàlla dogalee ñu gañaa te mooy li ñu bëgg ñu daal di ànd ñun ñëpp ñu bi bu fekkee yàlla dogal na ñu commencé ñoo gañaa yow mën ngaa jël waruwaay yi daal di jéema raw yàgg ñu fi nekk ndax ke Madina bàyyi nañ fa ay nit ñoo xam ne eh, ñooñu gën a xir ci yow wala ñun gënuñ leen a xir ci yow ndaxte Madina waxoon nañ junjoon nañ ne bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne nañ dem eh, kenn ku nekk danga nga génn rek ku génn képp koo xam ne génnoo yëdduñ la ci ndax yonent bi forcé woonu ñi ñu génn bi nga xam ne Saad wax na lu mel noonu yonent bi sallallahu alayhi ànd ci ñu tabax ñu tabaxal ko fu mu nekk wala ñu defal ko fu mu nekk ab xayma wala xay du mel noonu rek Saad moo newoon ci buntu ba di ko garder ak ñenn ci nit ñi xare bi commencé ni xare bi commencé mooy dañoo njëkk a def jaamaarloo kenn par kenn nga xam ne ci la jullit ñi ci la ci la yéefar ñi ñett génn ci ñoom te ñett ña génn ci ñoom ka ca njëkk mooy shaybatu bnu rabiata ak odbatu bnu rabiata ak alwalidu bnu odbata nga xam ne shayba ak ba moom ñoom ñaar ñoo bokk waajur bu dee walid doomi odba la nga xam ne ñoom ñett ñëpp ay mbokk lañ kee ay magaraka lañ ak seen doom ci yéefar yi jullit ñi ñett génne ci ñoo xam ne ñi ngi bokkoon ci waa ansaar waaye bi ñu génnee yéefar yi dañoo wax ne duñ déedéet duñ jàmmaarloo waa ansaar ñun kay ñi jàmbaar mooy ñoo xam ne ci ñun la ñu bokk donte waa ansaar suñu naawle lañ nit ñu baax lañ waaye nag ñun li ñu nangu mooy koo xam ne dafa bokk ci koo xam ne ci ñun la bokk kon yonent bi na génne ñoo xam ne suñuy suñuy jege ñaari lañ doon ci la yonent bi saa sa wax Hamzatu ak euh, Ali ibnu Abi ak Ubaydatu ibnu al-Xaaris ñu génn Ubaydatu ibnu al-Xaaris waxoon nañ ne arme bépp maanaam ñu àndoon na yonent bi sallallahu alayhi wa ñëpp moo ci gënoon a mage moo ci gënoon a nekk mag ci la kenn ku nekk ci ñett ñooñu jàmmaarloo kenn ku nekk ci ñett ñee bu ko defee xamsatu ak ali ibnu abi taalib ñoom kenn ku nekk kañ la boole loon afa nga yàgg yàgg def ak moom diir bu gàtt euh, euh, ray nga ko kañ la booleel ci yéefar yi afa nga def ak bu gàtt ray nga ko bu ko defee xutba nga xam ne xutbatu ibnu alxaaris moom euh, kañ ko boole loon ñoom ñaar dañoo xaw a gaañante moom da ko gaañ kee gaañ ko nga xam ne moom Hamza ak Ali ibn Abi Talib ñëw dar koy dimbale daal koy rayal kim doon léwaatool bi nga xamee ne noonu la mbir mi demee nga xam ne léwaatoo bi njëkk def rek jàmmaarloo bi njëkk a def ñoom yéefar yi ñàkkandoo nañ ci ñetti jàmbaar ñett ñoo xam ne ci seen e, njiir yi lañ bokk gis nañ ne lii daal jëmul kër ci ne nag e, nañ nañ song ci daal di commencé song bi songee yonent bi sallallahu alayhi daal di diggal e, Zubayr ibn al-Awwam mu fare ndeyjoor maanaam arme bi mu fare ci wàllu ndeyjoor ndax ab ab arme bu ñu xare ñaare dañ koy xaaj juróomi xaaj day am kanam am ginnaaw am ndeyjoor am càmmoñ am digg bi wàllu bu nekk dañ fay teg kenn ci njiiti soldaar yi mu fare ko bu dee ci wàllu ndeyjoor gi az-Zubayr ibn al-Awwam moo fa newoon wàllu càmmoñ gi Sa'd ibn Mu'az moo fa nekkoon wàllu euh, wàllu càmmoñ gi al-Miqdaad ibn Amr moo fa nekkoon ci kanam bi kanam gi yonent bi sallallahu alayhi moo fa nekkoon ginnaaw gi ko ñuy wax xaysum na abi saa saata moo fa nekkoon waaw nga xam ne noonu la xare bi demee woon euh, digg bi ni noonu bi xare bi commencé euh, ñu commencé dem yéefar yi commencé euh, xare julli ñu commencé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi ngi woon ci biir ginnaaw bi nga xamee ne fekk teg na leen ci yoonu yoonu ñu war a xaree xamal leen ni ñuy def ne leen bu ñu defee nangam nangam na ngeen seen fett yi seen xe seen seen xeej yi te bocc seen i jaasi bu demee ba jege leen ngeen doog a jëfandikoo seen xeej ak yu neen xam ne teg na leen ci doxalin woo xam ne moom la leen digal ne leen na ngeen ko xare bi mu leen ci tegee nag moom dafa duggal ci biir di ñaan di ñaan lool di ñaan ñaan gu mett di ñaan suñu borom di ko ñaan di ko ñaan di ko ñaan ba ba ba kaala gi tegoon ci kawam sax dafa wadd Abubakar ñëw na ko yonent bi saa sam maanaam sa ñaan gi sax daa xaw naa ëpp ci sa borom maanaam li nga ñaan mel ne ëppal nga ci ndax comme ngir yonent bi doon ñaanee yonent bi di ñaan di wax suñu borom nan ko ah yow yàlla day nga ñaay la nga ma digoon day nanga ma dimbale ba nga jox ma ko ndax na nga xam ne mbooloo mii ci mbooloo mi fi ay jullit kat bis boo xo bis boo leen bàyyee bañ alku ci bis bi na nga xam ne moom ab jullit tey la yem kenn dootu la jàmm ñett ñetti téeméer ak fukk ak ñett yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo fi ay jullit bis boo boo leen seetaanee ba ray leen na xam ne tey jii la fi la ak njullite di am kenn dootu la ci kaw suuf ci la noonu yonte bi di ñaan di ñaan di ñaan ba mu gi mel na lu lu lu xaw a nelaw daal di jékki-jékki rek mel ne lu jógee ci ay nelaw bég lool wax Abubakar ne ko kontaan na ndax suñu borom xamal ne Jibril la nga nii ànd ak ay mbooloo yoo xam ne dañuy ñëw ngir dimbali nu ci la Yonent bi saasam daal di génne daal di tibb ab suuf boo xam ne bi mu ko sànnee maanaam képp koo xam ne nekk nga ab yéefar tibb suuf boobu dugg na ci say bët dugg ci say bakkan dugg ci sa gimiñ nga xam ne maanaam dangaa ngaa fattu moo tax yàlla suñu borom naan ko wa maa ramayta iz ramayta walaakinna Allaaha ramaa bi nga sànnee sànni woo sànni nga sax waaye li tax sànni gi am njariñ dëgg-dëgg yàlla moo ko def ci la xeex bi nag commencé xeex bi métti lool ndax yéefar yi dañoo songee doole ndax bi nga xamee ne dañoo jaamarloo kenn par kenn ñu gañaay leen ci dañoo songee doole fekk na ko loolu it yéefar yi fekk na julli yi yonent bi sallallahu alayhi tegoon na leen ci ci pexe moo xam ne day mel ne yéefar yi ñooy njëkk a sonn ndax ñoom dañoo songee doole julli ñi nekkoon nañ foo xam ne ne position bu baax la woon boo xam ne ñoom duñ gaaw a sonn julli ñi ñooy yéefar yi ñooy ñooy njëkk a sonn ndax ñoom ñoo jóge dafay tawat ndox mi ak suuf yooyu euh, ñuy xeex yàlla suñu borom yebal ay malaayka ñu ñëw junni malaayka yoo xam ne ñu ñëwoon di xeex jibril jiite leen ñuy xeex di faagaagal yéefari faagaagal bu métti euh, wax nañ ne bis boobu rek la malaayka yi xeexe bisu badar am na ci borom xam ñoo xam ne sax dañoo wax ne malaayka yi wàccoon nañu waaye xeexuñ ndax ñoom li tax ñu ne xeexuñ mooy dañoo gis ne laafu malaayka rek maanaam benn donq ci laaxum malaayka rek mën naa tukkee àdduna kon malaayka yi nan lañ mën a xaje ci ñoom waaye li gën a wér rek mooy ne xeexoon nañ ndaxte li koy firndeel mooy dañuy wax ne yéefar yi léeg-léeg nga gis koo xam ne euh, ab jullit day yor jaas yi dem ba ko bëgg a dóor jekki-jekki gis bopp bi dagg wala nga gis koo xam ne dañuy yor jaas yi dem bay bëgg a dóor gis loxo bi dagg nga xam ne avant nga koy dóor am na leneen lu ko dóor loo xam ne gisoo ko nga xam ne kon loolu euh, yéefar yi nga xam ne kon loolu yéefar yi malaayka yi doon nañ leen faagagal ci noonu ci lañ commencé ci lañ commencé rey lenn lenn ci njiiti njiiti yéefar yi bi nga xam ne xare bi tar na lool ci lañ rey Abu Jahlin mi nga xam ne mënees naa ne xare bi sax moom moo tax mu sookewu ndax bi nga xamee ne Abu Sufyaan waxoon na leen dëpp leen moom moo ne déer dañ xeex Abu Jahlin moom niñ ko reyee mooy Abdurrahman ibn Awf mi mooy nettali ne bi nga xamee ne xare bi tar na ma nekk ci sama kaw sama kaw aw fas def ma lu jékki-jékki gis ñaari xale daal ñu ñëw kenn ki daal di ñëw déema ne ma ndax xam nga aboo jahlin mu ne ko waaw loo loo koy doyee mu ne ma dama dégg ne moom daan daan ngaañ yonte bi di ko saaga ak di ko def lu ne ma bëgg ray ko dogu naa ci ne bu buñ dajee man moom moom sama jaasi ji danaa ko dugal ci ab xolam nee na bi ma waxee loolu nes tuut beneen xale bi ñëwaat mooy wax ma ko dée ma ko te bi ma koy wax dafa mel ne ku ko doon dée bëggut waa ji dégg ne ma ndax xam nga abu jahlin mu ne ko waaw loo bëgg ci moom mu ne ma dégg naa ne danaan ŋàññi yonent bi ak di ko saaga te dogu naa ci ne bu ñu gisantee bala bala ma ko bàyyi euh, danaa jam sama jees ji ci xolam nee na ma daal di nes tuut ñuy xare ba aboo jëxlin xaw feeñ ndax aboo jëxlin gars yi dañ ko dañ ko aaroon wërale ko ay ay ay ay ay tata ak yooyu di ko ngir ngir ngir bañ gaay si moom a ibn Awf nee na bi ma demee ba gis aboo jëxlin ma daal leen woo ñoom ñaar ne leen ci ngeen doon laaj ma nga ne le ñoom ñaar bi ñu ko gisee daal koy songu kenn ku nekk ci ñoom ñaar dóor ko jaase mu daal faatu mu daal daanu daanaka tuutee ko dese woon a faatu ñu daal di ñëw ñoom ñaar ñëw ñoom ñaar ñëpp ñu daw ñëw ci yonent bi saasam kenn ku nekk ci ñoom ñaar xale yi naan ko yonent bi maa ko rey na Abu Jahl kii ma xool seen jaasi fomp ko ko ñu ne ko déedéet ma xool jaasi daan ne yéen ñaar ñëpp yéen a ko rey euh, Abu nag moom bi nga xamee ne xare bi xaw naa wuri yonent bi saasam dafa waxoon ni anam laaj daal koy wër daal koy laaj gars yi wër ko ci ñi ñu doon rey ba gis ko biñ koy gis fekk nañ xaw naa dese na dese na daal déewagut loolu eh, abdura abdullah ibnu mas'ud moo ko gis abdullah ibnu mas'ud moo ko gis eh, bi mu ko gisee daal koy téye dagg bopp bi indil ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu sant yàlla bu baax a baax a baax daal ne wan leen ma ko ñu daal di ànd ak moom dem ba ci jëmm ja daal ne ko mu ngi nii mu daal ne kii mooy firawnu haadihi l umma maanaam aboo jahlin daal mooy mooy sunu firawna ñu ñu xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abu Jahl mooy sunu firawna euh, ni am na ñeneen ñoo xam ne rey nañ leen ci xare bi dañ bokkoon ci kilifa yi yéefar euh, ñu ci mel ni rek ku ci mel ni an-Nadr ibnu Xaaris ibnu Alqama ibnu euh, Kanada ibnu Abdiddar ak ku ci mel ni Uqbatu ibnu Abi Muayt ak ku ci mel ni Umayyatu ibnu Xalaf ak ñeneen ñu dul ñooñu waaye ñooñu des na leen tudd bu ñu egsee ci ahamul ahdaas yi nga xam ne xew na ci xare bi Euh, ni ki noonu bi nga xamee ne yàlla dogal na xare bi dem na ba jeex résultat yi ñëw na am na lu fa mànge te màng bu ñu ko waxee mooy bu ñu reyee jullit ñi wala ñu man leen sañ nañoo nangu seeni alal ak lañ yor lañ fa mànge bëri na yàlla dogaloon na it bañ koy màng ab juuyoo amoon na ci ndax la waraloon juuyoo boobu mooy ne ñoom euh, dañoo gisoon ne kenn ku nekk da gis ne yaa ci gën a yey sa moroom ndaxte jullit ñi bi ñu gañaa yu yéefar yi ba yéefar yi di daw ba yéefar yi di daw ñii dañoo desoon di aar yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñii di dàq yéefar yi ñii dem di dajale màng ma kenn ku ne ne maa ci gën a sa morom ñii ne ah déet ñoo ko war a ñoo ko moom ñun kat ñoo ñoo ko doon dajale ñii ne déet ñoo ci gën a yeey ndax ñun ñoo dàq yéefar yi bañ ba tax ngeen mën koo dajale ñii ne déet ñun ñoo ci gën a yeey ndax ñun ñoo aar yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba gaa yi egsi woon ci moom ci lañ xuloo xuloo ci lool ba yàlla suñu borom wàcc ci aaya boo xam ne day leeral mbir mi ni mu demee fekk lu jiit loolu yéefar yi moom daw nañ ay xel ndax bi nga xamee ne gañaa nañ leen daw nañ ñibbi bañ ñibbee kenn ku nekk ba nga ñibbi taloo sa morom da ngaa fexe ñibbee rek bañ egsee màkk yi dañoo rusa dugg kenn ku ne da fexe ba laqatu noo duggee bañ ñu xam xam ne ñëw nga biñ ñëwee bokk na ci liñ def mooy dañoo fexe ba yëgal nit ñi ne gëmloo nit ñi ne leen yonte bi saasam faatu na ci xare ba donte xam nañ ne faatu waaye comme que ñoom moom amul luñ wax il ñu ul luñ wax ngir oyofal dogu jullit ñi jullit ñi sax am na ci ñoo xam ne wax nañ ne man gëmuma woon ne yonte bi sallallahu alayhi wasallam faatu bi ma gëmee ne yonte bi dund na daal mooy bi ma ko gisee yonte bi noonu xam gi xam loolu ci la yabalee Zayd ibn Haarisata ak Abdullahi ibn Rawaxata ci la leen yabalee mag Madina xamal xamal leen ne leen bu ngeen demee ni ngeen wax nit ñi ne leen yonte bi sallallahu alayhi wasallam dara jotu ko mi ngi ñëw ndax yonte bi dafa baaxoon ñaare fu mu xare ba pare bu leen man bu fa gañoo pare dana fa am ñetti fan doog a dëpp euh, bi abdullahi ibnu rawaxte ñëwee ak zayd ibnu xaarisa te zayd moo yoroon naa naa maanaam giléem gi nga xam ne moom yonent bi saasam daan wax ñu ko gisee mi ñëw sax dañoo gën a commencé dëggal lañ wax ñu naan gis ngeen li ñu leen doon waxaat mi ngi nii sayd mi ngi di ñëw war giléem ak yonent bi bu fekkoon yonent bi saasam mi ngi du ko war waaye bi sayd ñëwee ak abdullahi ibnu xaarisa te gars yi wër leen ci lañ xamalee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gayaa moo jullit ñi dana ñëw léegi balaa yàgg yéefar ñoom bi ñu ñëwee dañoo waxoon ne nañ nañ fexe ba bu fi kenn nefe di jooy sa sa mbokk mu faatu wala dara ndax ñoom dañoo baaxoon ñoom yéefar yi wala dafa bokkuñ seen aada ñoom ñu jiitu woon lislaam bu sa mbokk faatoo nga nefe di di ko jooy ak di pes sa bopp ak di xott say yére ak say poos di sol yu ñuul yooyu ak di ko jooy ngir wane ne am nga naqar waaye ñoom ñëwee dañ suñ gàcce gii kat nañ fexe ba bu ñu di jooy ndax bu ñu fi nekk di jooy nit ñi yëg ne am na lu ñu naqari dañuy gën a am gàcce rek kon nañ fexe ba duñ fi ne di jooy euh, euh, jullit ñi it ñoom it am mbégte lool ci gañaa gi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam gañaa na ko ba tax ñu génn di dem Badar ngir dajee yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko ndokkeel euh, di fàttali ne xare Badar bi Iblis ñëwoon na ci ndaxte Iblis ñëw gim ci ñëw ma nga commencé ca yoon wa bi nga xamee ne yéefar yéefar yi ñi ngi wax waxi continué ñëw ñëw ci xare bi ak dëkku ndaxte xam nga yéefar yi bi ñu ñëw bi ba ci yoon bi dañoo wax ne ñun bu ñu demee. mbaa duñ def lu ëpp ndax ñun banu Bakr mii aw nit lañ woo xam ne dañoo noonoo ak ñoom léegi ñun buñ demee jëm badar ñoom ñu farañu ginnaaw yéefar yi farañu kanam wala ñun buñ demee jëm badar ñu fare ginnaaw julli ñu farañu kanam nu ñu def est ce que yëf yi du metti ci ñun kon daal damaa jàpp ne li gën rek mooy ñu euh, ñu def noo xam ne dañu dëpp bañ a dem euh, bi nga xamee ne nag euh, wax nañ loolu yéefa iblis ci la feeñoo daal di meloo meloo kenn ci waa ci gaa yi dafa meloo meloo sayidu bani kinaana maanaam njiital ba bani kinaana mi nga xam ne ñoom ñoom ci lañ doon ragal ne danañ leen defal ay daan leen ah man mi nga xam ne seen dëkkandoo la dëkkandoo laa dëkkandoo la nan lay ñëwee di leen dox ginnaaw waaye dem leen waaye na ngeen dem te xam ne ñun duñ leen def dara fekk moom li muy wax lépp moom iblis la rek moo farewoo moo yor melokaanu fekk boobu fekk booba it moom euh, li li nga diir bi nga xam ne mi ngi def loolu fekk moom it euh, diir bi nga xam ne mi ngi def loolu euh, diir bi nga xamee ne jullit ñi ñi ngi sikk sàkk ndax dañuy dem xare yéefar ñi ngi sikk sàkk ndax dañuy dem xare ak ñi wala dañu toog ndax bu ñu demee am na ñu noonoo lool ñooñu mën nañ leen bett ginnaaw jullit ñu faral leen kanam ñu ñu ñu ñu tenc leen ci diggante bi ci la Iblis daal di feeñu nekk nit daal di ñëw ne leen ah déedéet dem leen ndax man kan maa jiite banoo Bakr te comme que maa leen jiite moom du ma leen du ma leen jox ndigal ci ñu ñu ñu ñu ci la ànd ak ñoom ànd ak ñoom ba xare ba Iblis mi ngi biir bi nga xamee ne nag gis na malaayka yi di faagaagal yéefar moom ci la samp aw xelam daw bi mu samp aw xelam di daw am na ko ko gis ci yéefar yi ku ñu wax alxaaris ibn Hisham daal koy jàpp teeku bi mu ko jàppee téye ko ne ko yow foo jëm yow yaa ngi àndoon ak ñun ba xare bi ñëw nga bëgg a daw iblis daal ko yokk ci dënd mu daal di fële mu ne ko maam gis naa gis naa man damaa gis mbugalum suñu borom te man damaa ragal mbugal suñu borom daal daw ci la daw ba egg ca géej gi daan na ca daan na ca yomb daal daw laqatu fa euh, bu ko defee junjoon nañ màng yi nga xam ne màng nañ ko fa ni noonu it am na fa ay prisonniers yoo xam ne jàpp nañ leen fa am nañu fa faatu ci jullit ñi am nañu fa faatu ci yëfër ñi jullit ñi moom ña fa faatu woon juróom-ñetti nit dong la te juróom-ñett ñi sax maam jullit ñi ña fa faatu woon fukki nit ak ñeent laa bëgg a wax fukki nit ak ñeent fukki nit ak ñeent ñi juróom-ñett ñi ñi ngi bokk ci waa ansaar juróom-benn yi ñi ngi bokk ci muhaajiroon yi bu dee yéefar ñi moom rey nañ ci ñoom juróom-ñaar fukki nit jàpp ci ñoom juróom-ñaar fukki nit waaw nga xam ne jullit ñi ñoo gënoon a néew fuuf te teewul ña faatu ci ñoom ñoo gën a néew yéefar ñi ñoo gënoon a bëri te teewul ña faatu ci ñoom ñoo gën a bëri xam ne mbir mi mbirum suñ mbirum mbirum mbirum suñ borom la waaye du mbirum e, doole jooy gis e, bokk bi nga xamee ne jàpp nañ yëfari di fas yéenee dellu yéen bi sax na ci Badar ñetti fan war a dëpp dafa ñëw ba ci yéefar yi nga xamee ne xëccoon nañ leen jàppoon nañ leen maanaam yéefar yi faatu woon nga xam ne diriwoon nañ leen sànni leen ci ak bënn gu ne foofu yéen saa sam ñëw na tiim bënn gi woo leen nanga woo ci limub ay nit ab lim ne leen diw sàngam doomi diw sàngam yow diw sàngam doomi diw sàngam yow diw sàngam doomi diw sàngam bañ daj mu ne leen ndax bég ngeen ndax maanaam li ngeen li ngeen def bég bég ngeen ci ndax xam ngeen ne da ngeen maa war jamono yi nga xamee ne ay ay jàmbur ñoom dimbale te yéen yéen a ma gënoon a jege ndax gis ngeen li leen seen yàlla yi digoon wala déet ñun de gis nañ leen yàlla digoon bi waxee loolu Omar ne ko ah yonent bi saa yow ñi nga xam ne faatu nañ ba daanaka tey la ñetti fan ci ñoom ah, daanaka mënees naa wax ne ay méd ndax danañ dégg li ngeen wax mu ne ah, waaw yow mii de gënoo leen a dégg li may wax waaye nag xam naa ne ñoom mënuñoo tontu waaw nga xam ne mm, ñi si des ñi nga xam ne farañ leen jàpp ñoom ñu ngi leen jiital jëmee Madina biñu demee ba ci yoon yi yàlla suñu biñu demee ba ci yoon yi yonent bi saa digal na ñu rey ku ñuy wax Nadr ibnu Xaaris ibnu Alqama ibnu Kanada ibnu Abdudar ibnu Abdu Manaf ibnu Xusay ibnu Kilab Nadr moom nga xam ne mi ngi dajeeg yonent bi saa nasabam ak maam askanam ak askan yonent bi saa mu ñi ngi dajee eh, nadr moomu ngir taxaw ci moom lu néew rek bokkoon na ci juróom ñi nga xam ne ñoo gënoon sonal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne naa wax ne sax nadr moom moo gënoon sonal yonent bi ci ko koy sonal ci yëfari ndax moom bi yonent bi commencé woote rek ak nettali li jógee ci suñu borom moom dafa dem eh, ca ca ca ca biti mag dem ci réew réew réew réew yi jàng fa ay xissa ak i uti téere yi gaa yi jiitu ya mokkal ay xissa ak i lépp ñëw bu yonent saa saasam toogee di nettali mu toog ci wetam di nettali bu paree daan ne leen ndax gis ngeen yonent saa saasam ak li ma wax ak li mu wax ñun ñaar kan moo ci gën a neex lay ay wax yonent bi li wax ak li muy wax ñoo yem rek wala man maa gën a neexle sax nga xam ne moom moom daan jaamaaloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaamaaloo boo xam ne bu naqaree défendre la nga nit ñi moom xamuñ dara li ngay wax rek la ñu gëm ku sonaloon yonent bi la bokk na ci moo bokk na ci jëndoon na ay ay jaam yu jigéen ñoo xam ne dañuy ñëw di way ak di eh, def yoo xam ne eh, lislaam da koy bañ jaam yooyu mu leen daan xiirtal ci jullit ñi ngir ñu leen di wël fab bi ak di leen di wëlbati wax nañu sax ci moom la aay bi wàcc wa min annaasi man yashtari lahwal xadiisi li yudilla an sabilillahi bi gayri ilm am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy réeral nit ñi di leen sànq ci mbir yoo xam ne mbir yu ñàkk solo la yoo xam ne dañ cay dañ koy toggoo eh, Nadr ibn al-Xaaris moom bi nga xamee ne ray nañ ko jàpp nañ ko ci xare bi Ali ibn Abi Talib moo ko rey Ali ibn Abi Talib bi mu ko reyee mbokkam mu jigéen euh, moo ñëw euh, ñëw ku ñuy wax euh, Fariha ibnatu Nadr ibn xaaris moo ñëw waaye ci ak xasida gu yéeme xasida gu yéeme goo xam ne maa ngi cay naqarlu ak di ci metti lu rey ki nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi moom la rey mbokkam mi wax nañ ne yonte bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamee gi jàng na xasida gi ba mu eggal yonte dafa jooy maam ronko ñi doon toq mu ne ko xasida gii de bu ma ko déggoon avant ma ko rey danaa ko jéggal te xasida ga mooy eh, yaa raakiban inna al uthayla mazinnatun min subhi xaamisatin wa anta muwathaqu abligh bihi maytan bi anna taxiyatan ma in tazaaru biha najaibu taxfiqu hal yasma anni nadru in naadaytuhu aw kayfa yasmau mayitun laa yantiqu amuhammadun yaa xayra din in karimatin fi xawmiha walfaxlu faxlun muxriqu maa kaana darraka law mananta wa rubama man nalfataa wa huwa almaxiisu almuxnaqu aw kunta xaabila fidyatin fala yufdayan bi azi ma yaxlu ladayka wa yunfaxu fannadru aqrabu man asarta xaraabatan wa axaquhum in kaana itqun yutaqu zallat suyuufu bani abihi tanuushuhu lillahi arxamu hunaaka tushaqaqu sabran yuxaadu ila almaniyati mutaban rasfal muxayadi wa huwa aanin musaq nga xam ne xasida gii da marsiyal mbokk moom ñu wax nadr yonte bi bi mu déggee xasida gi da ko dafa jooy am lu ko naqar lool mu ne li bu fekkoon ne xasida gi dégg naa ko avant ñu koy ray de dinañ ko jegal nga xam ne kon nadr moomu foofu la ak mujjam yam bokk na ci ñi jàpp nag waaye moom niñ ko jàppee tax na kenn waru koo bàyyi ndax ci régle yi xare rek am na nit ñoo xam ne bu ñu leen jàppee mënees leen na mën a mën nañoo jotoo am na ñoo xam ne bu ñu leen a moom duñ jotoo dañ leen rey ñoo xam ne ñoo jiite woon xare bi ndax moom drapeau yi yéefar yi sax ci xare bi moo ko yoroon nga xam ne bokk na ci ñi doon xam bu mat mi kon moom buñ ko jàppee desu ko mën a bàyyi bokk na ci biñu demee ba ci yoon wi bi ñu reyee Nadr moom demaat ba ci yoon wi rey nañ ku ñuy wax Uqba ibn Abi moom it ngir taxaw ci moom lu néew rek bokk na ci ñi nga xam ne ñoo bokk na ci ñi daan lor yonte bi lor bu metti ba bokk na ci juróom ñi nga xam ne yàlla suñu borom wax na ci ñoom ne inna kafaynaaka mustahziin ñi nga xam ne ñu daan yëjju yonent bi saa di ko di ko di ko di ko naqaral te ñu wax na ci ñoom la suñu borom jublu ci ay boobu bokk na ci ñooñu Uqbatu ibn Abi Mu'ayt ak Nadr moom nga xam ne tudd nañ ko léegi Uqba moom mooy ki nga xamee ne moo fekkoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wetu kaaba gi muy julli mu sotti ko sebitim gileem sebitim gileem moo poñe woon yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak kaalaam ba yonte bi sallallahu alayhi wa sallam naroon a faatu bu fekkoon ne Omar ñu wutoon dimbale ko Uqbatu ibn Abi Mu'ayt moom ba tey ñu ngi ko rey rey ci yoon wi ki ko mi ngi tudd Aasim ibn Saabit am ñu ne déet Ali ibn Abi Talib moo ko rey bi nga xamee ne yonte bi sallallahu alayhi mi ngi dox jëm Makka waa Makka génn nañ dajeeg moom ci yoon wi ndokkeel ko mu rafetlu ko lool ànd ak ñoom dem Makka daal di wax ne ñi nga xam ne jàppe nañ leen ci xare bi képp koo xam ne yor nga xaalis maanaam borom alal nga nanga fexe ba joxe ñeenti ñeenti junni dërëm jëm ci ñett jëm jëm jëm ci ñaar ba benn ñu dal lay bàyyi képp koo xam ne yoroo ko nag na nga jàngal fukki xale ci waa ansaar ndax bu dee waa waa muhaajiroon yi màkk lañ jóge te màkk daa nañ jàng daa nañ bind waaye bu dee waa ansaar yi nga xam ne ñoo nekkoon madina moom daawuñ bind mënuñu mën a bind yonente bi daan nag képp koo xam ne jàpp nañ la te yow mënoo joxe xaalis na nga jàngal na nga jàngal fukki gone ci waa ansaar mooy sax njot boo leen jàngalee bañ mën a bind commencé mën a demal seen bopp yow yow mën nañ la bàyyi euh, ñu nekk ci loola yonent bi saa sam dig digal saxaaba yi ne leen ñi nga xam ne jàpp nañ leen nañ rafetal ci ñoom nañ fexe bay rafetal ci ñoom di leen jëflante ñoom jëflante bu rafet donte jàpp nañ leen ci xare bu ñu leen fitnaal saxaaba yi jëfe gi jëfe ndénkaan loolu tax na euh, dañ daan lekk mburu sax dañ daan lekk tàndarma sax di jox ñi jàpp mburu te day mel ne jamono jooju mburu moo gënoon a moo gënoon a seer moo gënoon a kawe daal ci ci ci dund waaye digal gi leen yonent bi sallallahu alayhi digal ñu rafetal jëme ci ñi njàpp tax na ñu leen daan jox eh, lekk gi nga xam ne moo gënoon a baax eh, ginnaaw bi yàlla dogal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwaat Madina eh, nekkin ak nekki nekkinam wuuteeg nam fa njëkkoon a nekke ndax gars yi xam nañ ko bu baax léegi xam nañ ne am na doole yéefar yi commencé nañ koo moytu bu baax ngir doole ji nga xamee ne suñu borom may na ko ko ci xare bi eh, ak yéefar jàpp gi ñu jàppoon ne ñoom dañuy wëy rek di not jullit ñi ndax boo xoolee même bi jullit ñi gàddaayee jóge màkk ñëw Madina sax yéefar yi dañ leen doon tëkk nga xam ne ñoom ñi nga màkk jullit ñi nekk Madina ñuy yónnee ay leesar di leen tëkkoo di leen napp naa leen da ngeen jàpp ne duñ leen da ngeen rëcc gi ngeen rëcc fii tax na ngeen mucc danañ leen fekk Madina ci seen biir kër yi duma leen nangu li ngeen yor sànq leen waaye gañaa gi nga xam ne yonent bi saasam gañaa na ko tax na mu amaat doole lool waxoon nañ ne bi ñuy génn bi yéefar yi di génn Abu Lahab moo fa desoon la Lahab moomu bi mu ñëwee moom daanaka ay fan yu néew lañ fa la ca teg juróom fan dong la ca teg yàlla suñu borom nattoo mu am bu rëy boo xam ne bu xeeñ boo xam ne arab yi dañ daan dañ ko daan gaaflu nga xam ne ku ko masaan am dañ lay daw ak di la di la moytu dem na ba ci ba ci ay doomam sax dañ ko daan daw ak moytu bi nga xam ne fa juróom-ñaari fan dong la am daal di faatu bi mu faatoo am na ñetti fan yoo xam ne kenn jegewu ko nga xam ne kenn suulu ci lañ dem ba waa këram daal xam ne lii buñ ko bàyyee gàcce lay doon ci ñoom ci lañ ges ak kàmb rek jël ay bant fexe ba ba max ko mu dugg ci bant yi jël bant fexe ba ba max ko dugg ci kàmb gi ñu daal koy suul moom Abu Lahab nga xam ne ak mujjam moom foofu la nekk bu dee Abu Sufyaan mi nga xam ne moo jiite woon moo jiite woon njëg mi waxuñu ak mujjam waaye moom dem na ba ci ba ci mujj lislaam maanaam dem na ci bu ci mujj dundam mujj na doon ab jullit moom Abu Sufyaan kon euh, kenn ku nekk sa sa sa sa mujj mi ngi noonu nga xam ne kon ma des naa wax ne bokk na ci xew xew yi ëpp solo yi nga xam ne xew na ci xaswatu Badar mooy jullit ñi feeñaat gi ñu feeñaat ci meneen mbubb mu bees mooy génn gi nga xam ne ñu ngi ko génnoon ci ak noteel daal di ñëwaat wane doole wane ak njàmbarte ba tax yéefar yi doon dendeel ñëpp ñu deneen bàyyiwaat xel loolu bokk na ci li ëpp solo ndaxte boo jàngatee lu jiito xare bi ak ginnaaw xare bi di nga xam ne xare bi lu am solo la ci jullit ñi bokk na ci xew-xew yi ba tey rey gi nga xamee ne rey nañ ko ñu ëpp lu ëpp solo ci ci kilifa yéefar ndax boo xoolee yéefar wax nañ ne xare bi rey nañ fa seen kilifa yëpp ñu ëppoon solo ci seen kilifa yi raw rey nañ nañ rey nañ ci ci la ci la rey nañ ci Abu Jahlin te moo sooke xare bi ndax waxoon nañ ne dañuy dëpp mu ne du dëpp rey nañ ci nadr ibnu alxaaris bokk na ci ñi gën a sonal yonent bi saasam rey nañ ci uqbatu ibnu abi muayt waxoon naa ne moom moo xëppoon yonent bi saasam sébitum gile moom moo ko poñoon ba naroon ko faat ak yeneen rey nañ ci it ay nit ñu bari ñoo xam ne tudduñ leen mënuñoo tudd ñëpp ñoo xam ne seenu faatu amal na solo jullit ñi jullit ñi it nangoon nañ fa ay ngañaay yoo xam ne doole doolikoo nañ ci doole ndax ñoom bi ñuy dem ci xare bi juróom-ñetti si doo mën a yoroon juróom-ñetti ay mbubbi moom jàpp ma ne yoroon nañ ko te bu dee yëfar yoroon nañ juróom benn téeméeri mbubbi koŋ yoo xam ne ci la ñuy eh, yoroon nañ junniy giléem wala yoroon nañ téeméeri fas téeméeri fas bu dee giléem yi moom lañ ci yoroon kenn xamu lu mu daan def yor doole joo xam ne kenn xamu waaye gañaa gi leen di yëfari gañaa seen doole dañ yoroon mujjaat ci julli ñi gañaa gi nga xamee ne julli ñi gañaa nañ ko yëfari ba doole yëfari mujjaat ci julli ñi loolu bokk na ci xew-xew yi nga xam ne eh, am na solo lool bokk na ci xew-xew yi nga xam ne it am na solo te ci lañu mujje mooy wàcc gi nga xam ne malaayka kay wàccoon nañ ci xew ci ci badar dimbale jullit ñi ndaxte boo xoolee li ko li ko jiitu mooy julli ñi dañoo dem ak pas-pas rek waaye ba ñu dem mbooloo ma ñu yóbbu warutoo na mën a jaamarloo junni nit ndax ñetti téeméer lañu mu nekk julli nga xam ne kon eh, loolu ci tënk mooy li nga xam ne noonu la xasru bi demee woon maanaam xare badar bi noonu la demee ak li nga xam ne am na fa ci ay xew-xew ak ni nga xam ne eh, faatu nañ fa ci ay jullit te ñoo xam ne fukk ak ñeent lañ juróom-ñett ñi bokk ci waa ansaar ñett benn ñi bokk ci waa muhaayiroon ak li nga xam ne rey nañ ko fa ci ay yéefar juróom-ñaar fukki yéefar rey nañ leen jàpp fa juróom-ñaar fukki yéefar ñi ci des daw ak ngañaay yi nga xam ne yéefar jullit ñi gañee nañ ko ca ak place bi nga xamee ne mujj gi amaan nañ ko ginnaaw bi nga xamee ne xare bi jàll na kon dañuy yemale foofu wax ji rek di jox suñu seexoon na kàddu yi nga xam ne moom day farewoo lépp loo xam ne jaar na fi te am ay jàngat mu dar koy tudd asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ànd naag ay duruus yu bare bare yoo xam ay jàngat yoo xam ne man nañ ko ciy jàngate ba ci jiitu rek mooy li nga wax ni yonent bi salaam ba mu daan génne di xare taxawal lislaam moo ko taxaw na jóg ak tasaare diini waaye daanut xare ngir aw askan daanut xare ngir alal waaye tamit daawut xare ngir mbiru ñàkk solo ci xare yoo xam ne lu mel ni gileem wala yu mel noonu moo sos kon su ñu waxee xare ci islam noteel tax koo jub forcé tamit tax koo jub waaye li ko tax a jub mooy yaat yaatal diine ndax diine lislaam mooy diine yi xam ne moom la suñu borom wax ñu topp ci inna diina inda llaahi al islaam wax tamit ni wa may yabtagi gayra al islaami diina falan yuqbala minhu kon diine diine lislaam mooy diine ñi nga xam ne moom lañ war a topp comme que moom lañ war a topp moo tax kon yonente bi alayhi salaatu daan jublu ci xare ak lim ci daan daj moom ak ñi lépp lim ci jubloon mooy tasaare diine kon képp koo xam ne tamit wuutu ko ci loola mooy ci tasaare diine bi nga war a jiital rek mooy lool wala tasaare diine ngir bëgg ci dara ja wala wuloo tasaare diine ngir bëgg ci loo am waaye dañ ci war a tasaare diine ci ne diine ji diine yàlla la dañ koy wuute yonente bi alayhi salaatu salaam di ko jottali ci mu nekk loo xam ne tamit mooy eh, waa Quraysh dañoo gis ni dañoo xiroon lool ci ay masaale masaale masaale dunyawiya mooy xeeti intérêt yi nga xam ne dafa aju ci àdduna ci loolu tamit yàlla moo ko bindee nit nit ku nekk daanaka pour la xañ li ñu tuddee tedd nga rek nga jàmmarloo ñoom kon Quraysh si ñu gis ni moom li ko tax a gën génn dëgg-dëgg mooy gis na ni jullit yi bu leen bàyyee ci nii danañ ëpp loxo ndax xurays ak niñ tolloon ak niñ amee woon doole ñu nekk ay giiri giir eh, ñépp xamoon leen jullit ñi nga xam ne seen jum bëriwul mu ne fañ nekkoon ñu dàqee leen fa ñu dem bay ñamee kaat ay njëg yoo xam ni waa xurays ñoo ko moom kon loolu yàq dégg-dégg xurays la waaye yàq seen der la te bu fekkee ne taxawuñ ci day jur ak yabeel ca loolu yëpp ci xurays waaye ba jamono ji rek mi ngi dox boo xoolee eh, Amérique ñoom Saddam niñ jote woon daan soriwul loolu dañu ba Saddam commencé laal seen intérêt ba jamono jii tamit jamono jii ñu toll ñoo ko Iran liñ jotee soriwul soriwul loolu ndax seen xuloo bi yëpp Amérique nee dafa am ay yoo xam ne Iran da koo tàmbalee tahdid mooy da koo tàmbalee menacé ngir yàqu ko kon gis nañ ni nit ku nekk da tàmbalee ba dina sosoo ba léegi dafa mas di xiir ci ay kon xuray si xeet gi nga xam ne moom la xeeroon ci ay moo waral ba mu demee ba njëkk ma raw sax dani dinaa ñëw daal di yar li nga xam moo mooy julli eh, naka noonu daal di jàjj képp koo xam ne noroon ngaa def lu mel nii boobu ëllëgee doo ko def loolu tax Abu daal di faaw ñu dem ba Badrin daal di eh, duma julli ñi bu ko defee ray si giréem daal di tëgg fecc boo ko defee ñëpp xam ni am nañ doole ñëpp xam ne am na doole waaye foofu tamit dañuy gis ni moom bokk na ci li ko sànq mooy woru gi mu woru woru gi ndax gis nañ jullit ñi tuuti rek mu yaakaar ne mën na leen faagaagal kon loolu tamit ñu jege ci ne képp koo xam ne dafa jiite am mbooloo waroo sukkandiku ci sa bànneexu bakkan bay dugal ci mbooloo loo xam ne eh, nekkul yoon ndax ñoom am njëkk lañ soxla woon njëgg ma Abu Sufyaan wax na leen na leen njëgg ma raw na bind leen lettre ñenn ñi nañ dem Abu Jahl ne déedéet te moom moo jiitu woon mbooloo mi baatam moom lañ gën ci dégg kon loolu tamit gis ni njiit war naa meloo meloo e, jamono ji nekk day indil njariñ ñam jiite waaye du leen indil ay lor comme ni nga xamee ni Abu Jahl def na ko ba ca topp tamit e, suñu tànn jiit dañu war a tànn ku ñaw koo xam ne ku ñaw ñaw na waaye waruñoo tànn koo xam ne xel mi soriwul Abu Sufyaan li tax mu rëcc ci jullit ñi ak ñawam mbokk na ci ndax boo seetloo bi mu jógee Saam fu mu jàll rek mi ngi gëstu xam koy topp bi mu demee ba xam ne ñi ngi koy topp tamit def na ay pexe te ni mu xamee ne dañ koy topp tamit gis nga dafa jël neefere giléem daal koy tas bu mu ko tasee gisee xoox tàndarma ci biir mu ne ah waa Medina kat ñoo baaxoo di yàqalee seeni gileem ay xoox tàndarma kon ñaw ngeen nga xam ne ñaw na ko eh, génnee na ko ci naka noonu tamit bàyyi gi muy bàyyi xel saa su nekk ak di taqas yi ñuy wax taqas yi axbaar mais saa yu nekk rek ngay gëstu ay xibaar yoo xam ne moo lay soxal ngir dañuy wax ni bokk na ci jumtukaay yi nga xam ne day tax ngay gën a gañe mooy xam sa moom ak moom toogee loolu yëmul ci Abu Sufyaan kese waaye gis nañ ni Yonent bi aleyhi salaatu salaam ànd ak Abu Bakr def digg si xibaar bi mu dee góor googu laaj ci xibaar yi waa mu ne bu fekkee ne kii ma wax la mu wax am na ñu ko bàyyi ko bis sàngam te jamono ji ñu ngi war a bàyyi bërëb sàngam mi ko laajee ci biir ci mu def noonu kon Yonent bi aleyhi salaatu salaam xam gi xam information am gi am solo moo tax moo Abu Bakr ñu sonn ci gëstu xibaar yooyu. ñu gis ni foofu tamit yeneen di maanaam saa salaam jëfandiku koo tamit benn nukta bu ñuy wax tawriya tawriya maanaam euh, góor ga da leen sàttaloon ne ko bu fekkee dama leen a xibaar yéen di ngeen ma xibaar mi waxee ak yeneen temps salaam ne ko yéen ñan ñu ko mu ne leen euh, mu ne ko nax mu min ñu ñuy bàyyi ko ci ndox mu naan ndox man ndox dëkk sàng wala ndox dëkk sàng foofu yeneen di maanaam yi wax tawriya la def maanaam. mbir am ñaari maanaa mu jëfandikoo maanaa mu sore ma ki nga waxal ne yaakaar na naa mu jege ni nga jëfandikoo ndax suñ boroom doomu aadama dañ ko bind ci ndox kon ñëpp ci ndox lañ bàyyi ko kon foofu yeneen tensnam tontu loo xam ne dëgg la waaye dafa jëfandikoo li ñu tuddee mooy tawreet waaye loolu lépp tamit bokk ci njiit am xel gi nga xam ne moom la am xel naka noonu tamit bokk na ci ci solo ci xibaar yi ñu war euh, bàyyi xel muy ahamiyatu suura euh, diisoo am gi am solo diisoo yàlla wax na ci alquran wax yonent bi saa saa ne ko wa shaawirhum fil amr wax na ko tamit ne ko wa amruhum suura baynahum kon diisoo lu am solo moo tax yonent <coughs> yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu demee ba xam ne Eh, xare bi mënut a ñàkk a tàbbi ca moom jugul woon ngir xare ndax dafa jugoon ngir kat am njëgg dafa woo eh, saxaaba yi ngir diisoo ak ñoom bi muhaajir yi di waxee ansaari wax eh, ci làmmiñu Sa'd ibn Mu'aaz ci la door xam ne ah kon dana mën a sukkandiku ndax ba muy signé ak ñoom mu signé woon ñoom mooy dañu koon fii ak yaa ngi nekk ci ñun dañ la aar ah. waaye ba mu génnee di xare demee dem na bi nekkatut ci ñoom kon foofu moom diisoo gi ci diisoo ñoom am na solo lool ba ci topp tamit feeñaan na ci biir muy Xubaab ibnul Mundir eh, bi nga xamee ni yeneen di alayhi salaatu salaam wàcc na ci place mu ne ko ndax place bi nga wàcc yàlla moo la ko digal war nga def lu topp wala sax dafa nekk stratégie boo xam ne rek yaa ko jël yeneen di alayhi salaam dafa nekk stratégie boo xam ne moo ko jël mu ne ko ah kon nañ dem ba ca ndox mi daal di féete euh, kanam ndox mi bu ko defee ñoom ñuy mën a naan ci ñoom duñ mën a naan bi loolu amee tamit yeneen tamit alayhi salaam daal jël lam wax kon tamit loolu lay waral ne nit ki bu jiitee ay nit bu ñëwee ñoo fa xalaat warul di rëy rëy waaye bu fekkee xalaat boobu nekk na xalaat bu am solo rek nga ko waral dafa war a jël euh, ba ci toppaat mooy gis nañu julli gi bi ñuy dem li ñu ci ay giréem ak fas matul ba tax na dañ daan toggoo maanaam ñi ñaar ñi dañ daan war ñett buñ bokkee ak giléem eh, ñaar ñi dañ daan war bu defee kenn ki dox ñu dafa caabi ñee war dañ ko daan awan koo daal gis nañu tamit yonent jox giléem boppam wala sax jox fas boppam ndax yoroon nañ ñaari fas waaye daa séddew ñoom awante boobu di bokk Ali ak Marsad na ko noonu tamit di awante kon loolu gis nañ nit ki bu jiitee mook soldaar yépp bu ñëwee ci am mahamma mooy am mission dañ cee war a yam waaye wurta jëfandikoo foofu sañ-sañam bay jël maslaxa yoo xam ne daa waroon dellu ci ñoom ñëpp waaye yeneen dansa ñu toll eh, bu waroon ne ñoom ñëpp dox leen sax ñoom ñëpp ñu dox eh, yemut foofu daal di toggoo ñoom li nga xam ne mooy eh, ak Euh, ba ca topp tamit gis nañ ni njiit lu am am solo la njiit euh, moo xam ci tukki la wala sax ci teew ba tax na yeneen di ma alayhi salaam saa yu masante euh, tukki moo xam day xare ji wala luy mel day wut koo xam ne da koy bàyyi ca dëkk ba ci Madina mën na war moo tax tamit lu baax la gis nga bàyyi woon na ngir muy doxal li nga xam ne mooy mbir yi waaye tamit ñoom Maktoum bàyyi ko fa ngir muy jiite ne xam mooy julli ñu gis ni eh, am solo tax yu naa sama wax ne bu ci tukki sax donte ñett ngeen da ngay koo xam ne moo leen jiital kon njiit lu am solo eh, war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax eh, ndax képp koo xam ne amul kilifa rek saytaane day mujj nekk mooy kilifa bañ topp tamit dañuy tuddee ahamiyatul axdi bil asbaab Eh, sabab lu am gi am solo sabab lu am gi am solo yéen bi maa ngi salaatu salaam ne man rek maa yonent bi kon man la yàlla di dimbali boo ko defee àddam taxaw na rek ba xeex bu jot mu daal di xeex waaye deful moom bépp moyen boo xam ne gis na ni bu ci jaar bu ci jàppee dana ko may ndam da koo jël moo tax bi mu ñëwee bi ñu jàlloon sax xabaar bi nu ma la mu ko waxoon ci féet eh, jege ndox mi da koo def waaye tamit daa fexe ba jant bi wan ko ginnaaw moom wan jant bi ginnaaw bu jant bi fenkee di jàkkaarloo bëti yëfër yi ci loolu tamit eh, indil na leen solo su rëy ci xare bi kon ahamiyatul axdi bil asbaab looy dugg rek ko war a càmbar ba xool lépp loo xam ne boo ko sabab loo eh, mu mën na cee may ndam daa koy def ndax loolu bokk ne ci asbaab bi nga xam ne day tax su borom dimbal la ci mbir mi nga xam ne moom ngay sàkk ba ca topp tamit e, nit ki bu fekkee dafa jiite aw nit war na dinañ càmbar saa su nekk ca saa yu juumee war na leen jubbanti doon sax dañoo juum ci koo xam ne ab noonam la wala sax dañoo juum ci jamonoy xare gis nañ bi waa saxaabe jàppee kenn ci gone yi nga xam ne ñooy rootal wala ñaar ci ñuy rootal waa Quraysh e, di ko dóor ku la yónni mu ne la Quraysh da koy dóor ngir bëgg mu wax leen Abu Sufyaan wala ñu indi ndax ñoom ba ñuy génne di xarañe ba ñuy génne ñoo génnoon ngir kat njëgg bi kon julli ñi booba euh, li naan njëgg bi ñu jot ci moo leen gënaloon ñuy xeex ndax njëgg bi ñu ko doon kàll ci ñetti jullit lay toll te ñee di xeex moom mën ne junni ak nàngam kon ñoom ñu yemoon ci njëgg bi moo gën a sedd ñoom moo taxoon ñu bëggoon ko ngeen tontu leen na leen awoo sa jaan moo ñuy yónni bu ko defee ñu mën a dem jël njëgim ñàkk gim ne ñàkk tontu loolu nag moo tax euh, ñu koy dóor yaakaar ne da koy nëbb waaye teewal sa kii de da leen wax dëgg ngeen dóor ko mu daal leen a ngeen bàyyi ko kon foofu jaajaat na leen fi ànd ak li nekk nekk ci jamonoy xare waaye ànd ak kooku li muy nekk nekk dawul seenu noonu ba ci topp tamit gis nañ ni euh, ñaawi teggin moom daanaka euh, ku ko faral def doo am ndam ki njëkk rey ci xare bi mi aswad mi li ko waral ñu njëkk koo rey mooy ñaawi teggin ndax ñëpp taxaw nga jékki-jékki ne naan naan ci ndox mi di ci géej say géej kon euh, nit ki bu fekkee ni dafa am teggin donte sax aw askanam dafa ñaaw donte sax dafa bokkul fu baax loolu dana ko nëbbal wa huwa lasi jaala xusnal adabi yu fi jahalatan wa masali kon ñaawi teggin moom baaxul fenn ba ca topp tamit gis nañ ni njiit lu am am solo la moo tax saa yu nekk dañoo war di ko aar dañoo war di ko aar waaye bu ñoo bàyyi lu jëm lu jóg këpp ci kaw moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ñu daajal daajaloon ko lu mel ni ak xayma eh, teg ko fa teg ko gàtt lan moo tax njiit moo yor moralu soldaar yëpp moo leen yor buñ ko rayoon rek soldaar yëpp dañuy découragé bu ko defee tamit boobaa mën na cee jaaree dañ leen gaañe waaye fii ak mi ngi sax fii ak mi ngi nekk ci jàmm dañ leen mën a tawayal maanaam naka noonu tamit mën a soññ ba ñoom ñu góorgóorlu waaye saa yu déggee ñu ne faagaagal nañ ko ku nekk da ngay tiit ca boobaa tamit nizaam euh, ak euh, doxalin du amati kon mbir mu nekk kooku ko jiite war nañ di ko sàmm bu baax a baax ndax koo fii ak ci jàmm rek la muy jiite day nekk ci jàmm waaye mboolem loo xam ne dal na ko mën naa feeñ ci lam jiite kon ahamiyatul xifaad ala ala qaayid wala ahamiyatu ximaayatil qaayid kon loolu war nañ cee bàyyi xel bi topp mooy Euh, attanwin fil asalib attanwin fil asalib maanaam toujours danga war a indi ay méthode yoo xam ni boo ko jëfandikoo dana la jural ndam waaye waroo dox waroo sax ci benn uslub rek waroo sax ci benn méthode rek bu njëkk arab yi li ñu tuddee alkad wal far euh, méthode boobu lañ daan ëpp ci lañ daan jëfandikoo ci xare waaye dañuy song song ak daw waaye yonent bi alayhi salaam bi mu ñëwee fii bi mu defaree sàppe bu noppee dafa sensé méthode ca mooy li mu leen wax ne leen bu ñu leen jegee ngeen sànni leen li nga xam ne mooy fett yi eh, naka noonu tamit nam leen sàppe lool loolu tax na ba jaxase ne sàppe yu julli ji eh, sàppe yi yëfër yi bu baax baax tax na tamit méthode bi yonent bi alayhi salaam jël tax na yëfër yi gaaw a sonn ba jullit ñi sukkandiku ci loolu ngir gaañe leen ba ca topp tamit eh, yonent bi aleyhi salaatu salaam ñaan gi mu doon ñaan suñu boroom di ko ñaan eh, fanaane koo ñaan sax eh, di ko ñaan tamit ba Abu Bakri ñëw naan ko suñu boroom dana nangu sa ñaan du la gàccal moo la ko digoon soo xoolee loolu tamit bokk na ci sababu ndax ku toll yonent bi aleyhi salaatu salaam xam ne suñu boroom lu mu ko def rek lu mu ko wax rek dana ko def suñu borom lu wuute ab dël waaye teewul loolu al axsu bil asbaab muy sabablu tax na mu wëy di ñaan suñu borom di ko ñaan ba kaale gi watt Abu Bakar fekk mu daal eh, yëkkati eh, kon nit ki bu nekkee ci mbir moo xam bu yitteel la war na di ci ñaan te tamit ñaan boobu bu ci taayal ba ca toppaat tamit mooy jullit ñi dogu giñ dogu ak dëggal giñ dëggal tax na suñu borom dimbali leen waaye mu ci dimbali leen kese dafa yabal ay malaayika ñu leen di jàppale ñu gis fii tamit ni am na xiraat bu cam kon ne ko siñ sawabu jungee yéen ci borom xam-xam bi dañ ni malaayika yi dañoo ñëwoon daal di dolli lim bi rek waaye ñëw woon ngir xeex ndax benn donc malaayika mën naa faagaagal mboolem Euh, armée Quraysh waaye foofu dañoo gis ni malaaka yi ñëwee xeex nañ waaye bi ñuy xeex dañoo xeexee ci anam boo xam ne du nekk anam bu ëpp ba mbir mi ñoom ñu koy mujj de moom julli ñu bañ koo moom ndax bu fekkoon yàlla dafa yebal benn malaaka mu jël ak donkam daal di faagaagal yéefar yi ba liggéey fu ñu waxatee dañ naan ah yéen defu fi dara malaaka yi ñoo ñëw faagaagal waaye julli ñi dañoo egsi daal ci participer bu rëy xeex xeex bu rëy borom tamit malaayka yi si daal leen dimbali kon malaayka yi ni ñu xeexee eh, dañoo xeex ci xeexe boo xam ne dañoo ñëw ngir jàppale jullit ñi waaye xeexe wu ñu xeexe boo xam ne ñoom ñoo ñëw ngir faagaagal li xam ne mooy armée bi ndax jibril benn donqam rek boo ko dóoroon ñëpp ñu faatu waaye dafa bëgg gañaay di des di ñeel jullit moo tax ñu ñëw daal ci jàppee noo xam ne teewut ku ñëw rek dana xam ne jullit ñi ñoo def jaloore waaye am na nu ci doon waxee rek jaloore ji malaayka yi lañ ko askanale waaye kenn du ko askanale julli ñi naka noonu tamit eh, gis nañ ni ndaw lu ama am solo la ci lislaam ci yàgg na cee def ay jaloore waaye tamit yàgg naa am luy tuddee xamaas akuk dogu akuk farlu ba gis nañ ni eh, ñaar ñi xam ne ñoo rey abu jahlin ay ndaw lañ donte xilaaf am na ci ko si bi ci Ibn Mas'ud ak ñuy demee waaye gis nañ ne ndaw moom yàgg naa am euh, cër ci lislaam ba ci kosaam euh, xëy na ci guddal ba ci topp tamit mooy jullit ñi euh, saa yu ñu amee ak wuute war a ñoo delluwaat ci alquran ak sunna war ñoo delluwaat ci alquran ak sunna loolu moo waral jullit ñi bi ñu wutee ca màng ma nga xam ne moom lañ jëlee ci xare bi ñii ne ñun ñoo doon xeex ñoo ko ram ñii ne ñun ñoo ko dajale ñi ci des ne ñun ñoo doon gàddu yonent bi dañoo delluwaat ci njàngale suñu borom suñu borom wàccee aaya leeral leen ko ñoo ñëpp daal delluwaat ci njub loolu it toll yaa ayyuhal wa atii'u rasuula wa ulil amri minkum fa in tanaaza'tum fi shay'in farudduuhu ila llaahi war rasuul kon eh, jullit ñi saa yu nekk rek mboolem loo xam ne jaaxal na leen ci diine ba ñu wutee ci war nañ koo delloo ci e, yàlla ngir mu leeral leen ko wala tamit ñu delloo ko ci njàngale bi yonente bi alayhi salaatu salaam ñu ngi koy delloo ci yàlla nag mooy sukkandiku ci ñu ngi koy delloo ci yonente mooy sukkandiku ci ay sunnaam wala sax ñi nga xam ñoo fi nekk ngir di leeral sunna yooyu waaye buñ deful loolu rek e, benn gi suñ borom Eh, digaloon suñ ko deful rek boobaa suñ kattan day day day dem wala tanaza'u fa tafsalu wa tadhhaba riihukum bu leen ŋaayoo ndax bu da te bu ngeen yonjaxee seen kattan yëpp day dem kon saa yu nekk war nañ di delluwaat ci jàngale njàngale bi yonente bi alayhi salaam ci bépp wuute boo xam ne am nañ comme ni nga xamee ne saxaaba yi defee nañ ko ci xare bi ba ci toppaat tamit gis nañ ni iblis moom dafa mas a toppee julli ñu mbooloo dafa mas a toppee julli ñu mbooloo ba ci e, xare bi sax daanaka zuruf yi li muy jafe-jafe ñëw na ku taxlu ci ba jaxase yëfër yi ba ñoom bañ ñëw biñ demee ba ci yoon ba ci digg bi nag ba mu xam biñ xam ne e, xam ne caaxaan jeex na dañ leen di gañe ci mujj taw kon li suñ boroom wax ni e, seytaane seenu noonu la na ngeen ko jàppee am noonu loolu saa yu nekk day feeñ koo xam ne nag da fexeel ci xare boo nekkul ci xare motul di wax kon seytaane saa yu nekk war nañ di ko moytu bu baax a baax ba ci toppaat tamit mooy jëflante bu rafet jëflante bu rafet ba ñoo xam ne sax dañ leen jàpp ñu nekkee ay prisonniers ñoo xam ne dañ leen jàpp gis nañ ni eh, yonent bi alayhi salaam jàppoon ci xare bi ci yéefe yi dafa digal jullit ñi ñuy jëflante ak ñoom jëflante bu rafet ba ñoom sax dañ daan jël lekk gi gën a neex daal leen ko jox ñoom ñuy féetewoo lekk bu naqari te loolu bokk na ci li gën a am solo ci asaale bi daamu mooy nit ki boo koy woor ci yoonu yàlla danga ngaa war a am comportement boo xam ne moom day naw boobu bu ko defee eh, mu roy la mu roy la ci loola loolu dana tax nga ko xëcc waaye saa yu nekk. boo boo dëkkoon ci noppam naan ko gëmal yàlla gëmal yàlla toppal yonent bi toppal yonent bi ca gisu say jikko lu naw boobaa dana yeex buy sa woote di fedd la waat rek la suñu borom wax ne uddu ila ak wa jaadilhum billati hiya bi war naa meloo ay melokaan yoo xam ne kum bokkul diine sax melokaan yooyu dana ko neex ba tax mu xëcc koo jéem ko ci diine ji loolu bokk na ci addaawa bil hikma wal mawida alxasana euh, ba ca topp mooy xam di mu ko jox dayo ak lépp loo xam ne mën na koy istiqlaal mën na koy jëfandikoo ngir wane ci xam-xam da koy def gis nañ ni ñi jàppoon ci yéeféer yi ñi ci am xaalis dañ leen a laaj xaalis bàyyi leen waaye ñi ci amul xaalis dañ leen wax ñu jàngal doomi ansaar yi bañ mën a bind euh, ñu door a bàyyi kon soo xoolee lislaam xam-xam da koo yàgg yitteel ci saa su nekk kon ko ci jamono jooju nag ci la ko xam-xam yitteeloon waxuñu waxuñu jamono ji waxuma la ak jamono ji kon war nañoo gën a bàyyiwaat xel bu baax baax ci xam-xam rawatina ci njàng euh, looloo taxoon sëriñ bi daan na ko digal lu bare rek yaa yaa sibyaana laa tastaxilu anil hudaa wa bil ulumi euh, kon xam-xam moom war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax euh, bi ci topp mooy gis nañ ni képp koo xam ne yàlla dafa woote aw yoon yow nga dem jaar ci yoon wa ca des di jàmmaar la moom ci mujj bu ñaaw rek ngay mujj boo xoolee ak wala xamin loolu moo ko dal dem na ni mu faatoo ni mu waaye eh, tamit anam yañ ko sóolee ni mu ñaawee te loolu tamit eh, am ñu bare bare ci yëfër yi ñoo xam ne bokk nañoo moom loolu kon loolu day wane ni eh, képp koo xam ne yaa ngi tëgg suñu borom wala koy dëgg maanaam ci alkande rek ci ngay mujjee ba ca topp tamit mooy jëmmi julli ñi xare bi bi mu jàllee dafa am benn mazhar ak benn makaana wàccuwaay bu ama am solo boo xam ne amaan nañ ko ci biir adduna bi ndax njëkk xare bi dañoo ñëwoon doole na ko noonu tamit desee woon ñooy siiw génn siiw waaye bu te ne Quraysh eh, ku ko gañee ci jamono jooje sam xibaar dana àgg ci àdduna bépp waaye tamit ñëpp dañ la dañ la ragal kon julli ñi xare bi jëlee nañ ci lu am solo loo xam ni ci lañ sukkandiku ba fu baree bare ñu àggale li nga xam ne mooy lislaam moo tax xare bi moom nekkoon na xare boo xam ne bu solo yow foofu waaye ñi nga xam ne ñoo ko teewee woon suñ borom da leen a jéggal suñ borom da leen jéggal woon xare bi te ginnaaw bi tamit dañoo amaat beneen wàccuwaay ci diggante saxaaba yi nga xam ne suñu woon kii fekkee na Badr rek Badr rek da am ko wàccuwaay bu mag a mag boo xam ne moom leen jox ba ci may yi daan joxe ak yi demee noonu dañ daan beral loxo ñi nga xam ne ñoo fekk woon badrin kon xare la boo xam ne am na wàccuwaay bu am solo waaye wàccuwaay bi li ma am solo solo lépp li koy lal mooy li ñu tuddee ak toog ak pas-pas ak ngëm-ngëm ndax ñoo xam ne ñetti téeméer fukk ak ñett rek lañu wala ñu ko jege eh, àttana jàkkaarloo junni jëm kaw kon loolu ku amul pas-pas mënoo ko waaye tamit koo mën ak dogu mënoo ko kon loolu day wane pas-pas akub dogu solo si nga xam ne yàgg na ko am ci lislaam ba jamono ji nga xam ne bépp mbir ci dugalee pas-pas ak moo xam ne pas-pas ak dogu manqué na ci rek mbir moomu mën naa euh, euh, ñàkk dox kon ci gàttal xëy na mën nañoo euh, yemale foofu kàddu yi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokki jullit yi fi teew ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant te di leen gërëm tey rafetlu jataay bii nii mu mel fii ku fi ñëw wax dëgg yàlla sa xol dana sedd ci li nga xam ne moom la yàlla teg muy weeru koor yi nga xam ne moom lañuy ñuy waxtaanante léppam di yiw waaye nag euh, defin wi moo rafet ndax kuy waxtaane diine ne ci biir weeru koor doo tala jëw kuy waxtaane diine di fàttali farata yi ak sunna yi nekk ci tarixu nabi sallallahu alayhi wa maa ngi fekk sëj jaay mu nekk ci xarbu badar muy xareb badar waaye noonu mu ko waxee yéeme na ndax nit ña nga xam ne ñoo di jullit bariwuñu nit ña nga xam ne ñooy yéefar bari nañu waaye ba ñu baree dañoo am ab yóbbal am lu ñu war ami fas ñu dem sun borom may yonent bi sallallahu lu mu ko mës a may keroog muy ngañaay loo xam ne ni ba léegi moom la yoon ñëpp di béggee muhaajiroona yi ñoo jóge woon makkatal mukarrama ansaar yi di waa waa madinatul munawwara waaye itam la ca xew moom nangu naa li sëñ bi wax léegi ne ndimbalul yàlla ca feeñ ndax keroog ku ne xam na ne Badar moom ndax xew fukki nit ak ñeent lanu pert noonu nun nun waa kër yonent bi sallallahu wa sallam ñeen ak juróom-ñaar fukk ak nàngam rey nañ leen te jàpp nañ lu ëpp juróom-ñaar fukk kon nag foofe ndimbalu yàlla yàlla na nu yàlla dimbale ci lépp waaye lii sëñ bi wax léegi sama jarbaat bi li mu wax léegi wax na dëgg pas-pas ak yitte mooy tax a yegg lu mu ànd lu ne fu mu dem ba fa muy yem rek nga yem fa waaye fu lu àndul it da ngay jëfandoo taxawandoo waaye doo yeggale fenn mel na mbir yow kon nag suñ borom tabaraka wa taala mi nga xam ne daf nu baax weeru koor ni di waxe weeru lépp loo def sunu borom day dogal dañ la ci yokk lépp lañ la ci war a fay nga xam ne dafa mel ne ñetti koor rek ku ko yéwénal day mel ni yaa ngi sori ci sa yoonu àjjana kon nag yàlla na ci yàlla dimbalee ndax suñu borom gan amul wii xeet da leen teg lu diis li wii xeet da leen tànnal lu woyof li dafa tànn loo xam ne rek moo am ci njëriñ ci noonu àddina am ci am njëriñ ci noonu alaxira ndax yaa ayyuhal lazina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba alal lazina min qablikum laallakum tattaquun hmm, kama kutiba alal lazina moom kon nag xam na ne ñu fi jëkkoon ak ñëpp dañ fee nekkoon di ko doxal biñ ñëwee itam ñun ñii itam mu daal mu daal koy teg dugal ci yërmande nag yërmande jëm ci dugal mooy baat bi mu wax ne asawmu ci hadiisul xudsi yi nee na asawmu lii waa na asi bii loolu nag ndimbal la loo xam ne nii eh, wax dëgg yàlla te at mu ne mu ñëw waaw boo gisee borom kilifa yi daan ko tertoo du rafet ba ci tertu sëñ Tuubaa bi nga xam moom la ñuy nga xam ne maanaam gan gi may bëgg a ñëw daal sama mbétte la dama ko fas yéene teero di ko teero ngeen jee teero maanaam teero yooyu ñooy ñooy yàkkamti nañ ko duñ ci jël bés duñ ci duñ bañ a dundal guddi gi duñ bañ a dundal bëccëg bi duñ bañ liir alxuraan kon nag euh, sëñ xaarim yàgg mboolem ñi fi nekk rek ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm borom dëkk bii nekkoon fii yeesalaat fii nag nga xam ne ba Seex Masamba nëbboo 1942 suñ borom dogal euh, ña ko féete kaw te jëkk koo feeñ kenn ku ne dem nga ci beneen béréb doon fa dundal li bu dee sëñ Mahamadan Mbàkke ña koo xam xaman Tuubaa Mbeel waaye su dee Cheikh Modou may ñi ko xamoon kere kere kere ndaw gii fa la defoon ak daaru fa la ko kilifa yi daan fekk waaye suñ suñ jàmbaar ja nag sëñ Modou Faty Khary ba mu xoolee ne fii sëñ bi nekkoon yayoon dundal mu tàggu leen nag ci respect ak soufisme bi mu amoon ne leen ndax fii itam bu ngeen féetee fii itam noonu ñëpp xëjunu fa ngeen ne ndax dana danaa mën a ne fii dundal ko di nekk leen fi ñu rafetlu lool lool bokk aw kayit bind ko xamal leen ne xamal na ko ne foofa sëñ Masamba fa nekkoon bu wér te moo la jur bu wér te am nga fa benn baay boo xam ne noonu ñëpp moo ñuy taxaw muy sëñ Dàmbale daal koy boole sëñ Dàmbale 1943 sëñ Modou Fatou Khary yeesal Daaru Karim waaw kon nag lii la fi bëggoon l'islam saafi diine saafi ñuy jaamu yàlla saafe ñu bëgg yàlla saafe ñoo xam ne ñu jéggalu yàlla te fas yéene jublu yoonu yàlla te seenu mu ñu bëgg ko rafetal ñoo fi daje kon nag ñu ngi sant bu baax ci lii di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala nag xam ne moo nu moom nu mu saaxal ko fi te may leen nu gudd fan te may nu ko nun ñëpp ba kenn ku ne la la rawan bi sax ndaw da nga am ngërëmul yàlla fii بسم الإله ينمو الهاء بلا مناهي ولا انتهاء بسم الإله ينمو الهاء بلا مناهي ولا انتهاء بسم الإله ينمو الهاء بلا مناهي ولا انتهاء